Hello YouTube asalaamaaleykum soo dama def tey vidéo bu gudd laa doon def tey even though maa ngi break bii nii from videos but it's difficult parce que ñun ñoo xam ne si community bi te right naa dafa am beneen wax bu génn again ni ñi di wax di def different videos about it te it's just insane so bu ma ko gisee depuis démb maa ngi ko gis mu ngi go on fan yi to be honest but depuis démb si guddi moo gisee yeneen vidéo yi ma ne no so selanites more hey i had to do video about this and then ma continue di jël sama break bi hopefully ne léegi naa jël sama break bi because maa ngi recover from feebar bi maa ngi tane torop but I'm not fully recovered yet you know so suma yaram bi ba léegi is fine suma bopp bi suma nekkee di wax torop dafay métti and yaram bi is not fully there yet you know still because virus bi is real honestly so tey video bi nag dafa gudd waaye dama break down bit by bit you know of my own experience parce que maa ngi def vidéo léegi ñetti at léegi macha allah te jàng naa si lu bëri si ñetti at yi soo def naa vidéo pour ay nit di dimbalee ñeneen nit ñi tax ma defal ñeneen vidéo pour maa ngi dimbalee ñeneen ñi wala just vidéo yi ma def pour di wax suñ community bi seen problème ak ah, affaire yi nga xam ne dañ ko war a wecci dalee ko si child marriage ba everything else ak just video yu ma def pour entertaining but most of the time sama video yi even si fekkee ne entertain la sa daf dee nekk loo xam ne pour luñ war a mun a jàngee la parce que loolu moo ma tax a jóg so video bu gudd bi tey bu ma def nii break naa down suma experience yi man you know of doing video yi fa ñetti at ak yeneen area yi nga xam ne ñun ñuy def video war nañ koo mun a seet ak ñun ñi nga xam ne ñooy seet seetaan vidéo yi ak di ko séddale it yeneen area yu ñu war a seetlu xaat ak also def naa fa suma expérience bu moom mitee first lady bi bu ma demee woon Gambia soo def naa fa so many different bits yoo xam ne tey dama dee try ma explain xam ngeen suma vidéo dama dee explain bit by bit so moo tax vidéo bi guddu ba hopefully ne di ngeen am time ngeen seetaan ko yëpp because right now ni ñaa ngi si toog su fekkee ne xamuleen su ngeen ko seetaanu yëpp sax ngeen ñëw beneen yoon ngeen jekkali ko parce que loo xam ne la mun ngeen see dimbalee nit ëllëg mbala ngeen dimbalee si seen mbokk yi mbala ngeen dimbalee seen bopp sax parce que community bi ñun ñëpp ñoo si nekk di dimbalante kenn ku nekk nu ngi koy defee is ku amul xaalis pour dimbale it sa gémmiñ gi nga xam wala sa bët yi wala sa loxo baaraam yi ngay click di like di click di share loolu yëpp dimbali la te bit by bit kenn ku nekk da impact bu nga mun a xam ci suñ community bi nu ngay mun a dimbalee ak nu ngay mun a yàqee te yéen yi nga yëg ko yéen yi yëgoo ko yaa ngi dimbale wala yaa ngi yàq boo ko yëgee boo ko yëgul soo explain naa loolu noonu yëpp bit by bit si vidéo bi but yeah loolu rek laa bëggoon a wax balaa ngeen di seetaan vidéo bi pour ngeen xam ne vidéo bi dafa am fayda si man te loo xam ne dafa dëggu torop si man dafa mel ni suma one of my honest videos rek vidéo yu bëri yi moo dee def fii daf dee nekk loo xam ne suma xol bi laa po in a videotape is one of that. So it's kind of embarrassing, but it's fun as well, especially some bits, especially when I met the first lady, that bit was funny. <laughs> but yeah, so ngeen seetaan video bi ngeen wax ma what you think about it comment below like if you like it and yeah hopefully ne yéen a ngi ok ne yéen a ngi cope si uh, hard time bu nekk ni of the year yàlla yéen ñi feebar bi bu leen ko xam ak yàlla ko ko xam yàlla na wér yàlla yàlla indil ñu luy faj feebar bi mu génn si àdduna si as soon as possible ñun ñëpp ñu fekkee su feebar bi rombee it yàlla nañu yàlla indil àdduna bi nu mu meloon ba yàlla def mu gën a baax sax yàlla yàlla gën ñu ubbi suñu wërsëgal ñoo man may fan bu gudd gën ñoo jos may àdduna ñu dund ba ñun ñëpp ñu fekkee incha allah suñ doom yi barke dund xam àdduna bu barke bu neex ñun ñëpp ñu fekkee incha allah is possible nañ stay positive te ñaan yàlla baax na soo ngeen enjoy vidéo bi and dinaa leen gis ma leen setee incha allah allo facebook dama ñëw pour ñu wax ci problème buy xew nii <laughs> dama ñëw pour wax sama own experience what I think about it and yeah. Them very emotional. Due to many things, but Hello, especially right now. luy xew nii right now um, mun na am dama ko gisee ni ma gisee nii because right now maa ngi nekk different person maa ngi ñëw maa ngi follow suma journey bi you know yéen ñu si bari yéen sax yéen ñu may seetaan yu suma YouTube channel bi xam ngeen ne dama nekk ñu Amie now ok maa ngi try pour nekk ñu Amie maa ngi try bu nekk new ami ami bu ees xat yi yëpp munta possible because of suñ culture bi ak lu ma dund si àdduna and but yéen si bëri xam ngeen ni xat bi waxoon naa leen ne depuis si xat bu xees bi ne leen xat bi si man mooy xat boo xam ne su ma wecceeku hut dootuma wecceekut far coronavirus bi ñëw gën maa xee gën maa tax ma gis àdduna waaye wax buy xew nii lu ma si xalaat laa ñëw pour wax ak lu si suma expérience man xam ngeen suma vidéo yéen ñu si bëri su ma ñëwee si vidéo yii lu si bëri du may nekkati yi damay nekk damay génnee suma feeling yi ak suma interest teg ko fële just dive in moo tax yéen ñu si bëri ngeen xiit ma again tey dafay nekk another honest video deep honest video boo xam ne xëy na dina xam ñu ma xéet xëy na dina xam ñu si doxee respect nga ko good but xaruna noonu la doo mun a please ñëpp so the reality is ñun ñu bëri dalee ko si man ñun ñi jël problème bii problème yi faatu faatu ñaari faatu yi xenu ko di si yuuxu di si xaste di kële di xas faatu bële kële di xas faatu bële it's because ñun ci suñ bopp dañ niit help comme ça man rek time bu ma ko doon def dama niit help that's the reality hopefully duma ko ever defaat ever again because léegi maa ngi begin di gis àdduna bi a different way especially you know koro bi koro baay bi su ma waxee koobaay rek xam leen ne tour bi bugguma ko tudd torop parce que soo koy tudd torop internet bi dañuy génne sa vidéo bi dañuy fa ne ngay wax nit ñi loo leen war taw dara di leen jox fake information wala dara soo su ma waxee koo xamal ne feebar bi xew nii lay wax xaj bu xees bi like I said dama bëggoon nekk nit ku xees moo nekkoon suma góol pour ma nekk nit ku xees sakantumaa ni may waxee ci ci internet bi xat yi nii yëpp ma wàññi ko génnee yeneen wax yi ni ma ko daan waxee because ñun ñu si bari de réalité it lu tax ñuy wax ni ñuy waxee si internet bi mooy dañ mere suñ culture bi dañ mere suñ nit ñi fa ñuy métit la ñuy dund loolu rek na tingees talee ko si man métit bi ñuy dund xàppiwuñ moo tax bu ñëwee suñ vidéo yi nga di ko gis ni ñuy def di ngañ ngañi gi nga nit su fekkee ne yaa ngi dund normal happiness yaa ngi xam normal happy peaceful life ah su la nit saagaa ndey sax soo koy tontu sax jaru nga koy wax ina angry merwe jaru ngay saaga xaat koog ndey man nit saaga woon na ma ndey ma saaga xaat ko waaye sama bopp laa bileem wax naa leen ko after that si saa si laa ñëw def vidéo balu leen xaq ba pare wax naa leen ne dootuma ko defati ba xarina tukki te suma bopp laa bileem ndax ki ma saaga lu ko manti dal bam saaga ma man man waruma alaaw man ndofam gi wala lu ko manti dal ñëw dal ma ndax nit booy saaga dof ngay nekk time bu ngay saaga muy man muy ku mënti do def naa ko before time bu ma ko doon nekk dof laa nekkoon that moment soo dofut doo nekk di saaga nit ndey wala ngay wax wax yu hëpp yi doo si mata Facebook live or no that's the reality saa woo demee bay saaga nit ndey wala nga di ko wax yu hëpp yi saka moom waxul la dara deful la dara wala mu jotee yow waaye saagawul la ndey ngay tëb rek di go personal danga dof that moment you need help that moment def naa ko in the past starting from me so man waruma alaaw ni koo xam ne dafa need help moo tax mu di ma wax wax yu hëpp ma ñëw nag man jël jël jël jël jël jël lu ko dal noonu def ko suma bopp ma nit ba raw ko the nga nit ki toppandoor nit waaye bu toppandoo nit koo xam ne lu muy def baaxul lu muy def yow fa lay fa lay yàqal sa àdduna yow nga di ko toppandoo loolu is the greatest stupidity that us human beings are good at that's the reality xaw ma nag ñun doomu adama njaay lu ñu def yàlla loolu laa xamul parce que ñun duñ toppandoo ku baax xoolal imaam yi nga xam ne dañuy taxaw saka imaam bi ne London noonu di di waare waare soose la di gën a wax yenn yi sax def dee jéem a wax xolof te xolofam wal awa daf ko dee taxaw si jumaa xam ji di waare kenn du ko seetaan benn nit ñaar wala ñett xat yi yëpp maa ngi koy wax depuis ma commencé def vidéo ba tey saa wam taxawee su ma ko demee di seetaan vidéo mi man nekkuma xooli muslim de maa ngi try léegi pour gën a xam yàlla wax naa leen sama bopp depuis day wan man na jaralut ma dara su ma na ma koo suukar naan ko wax naa leen sama bopp depuis day wan xaw ma yàlla lu bëri de nekkuma xooli muslim all these def naa fi insane video def naa insane stuff in general loo xam ne good muslim du ko def waaye nit ki da ngay wecceeku nit ki da ngay jàng àdduna xam ne dee dafa xam yéen yéen koobaay bi koobaay bi ngeen gis million ngi nit ñi dee every day tiitalu leen ngeen defoon ne yéen du ngeen dee yéen a gën nit ñooñ xam ngeen ndax yéen yéen nekk next wala man wala wala anybody hey doomu aadama njaay bàjjot ñun luy mën a jógee si koobaay bii di wax wax yi ñuy def di defante defante yi ñuy def di saagandey saagandey yi ñuy def ràng direeku foog ne ñun bi ñu ngi toog suñ néeg ak suñ kopof tii rek koobaay bi du ñu dal ñun duñ dee suñ doom du dee suñ yaay du dee suñ mag du dee suñ rakk du dee subhanallah yàlla bu kenn dee waaye est-ce que ñun ñoo gën nit ñi dee du ñu ne cobaye bi koo xam ne sa wér-gu-yaram baaxul dëgg fa lay rey xam nga sa wér-gu-yaram lu si ne lu mel wala sa wér-gu-yaram yi ndey wala baay wala mag wala rak man famoon naa loo xam ne dama foogoon ne baay bi la tuuti ma dee su ma dënni ba tey ñaari semaine te ba tey su ma naw kii mënta ko rek ba ma dalee tey ñaari semaine waaye dënd bu fatt moom ba ma ko commencé ak tey matagul ñaari semaine ndax si yaramu métti la tàmbalee ñetti fan ak lu teg suma yaram wi di métti mel ni ko sibbutu ma naa noonu de xaw ma lii lum la balaa dënd bi di ma attaque dënd bi ak tey ëpp na one week ba ma dënd bi attaqué ba tey te ba tey suma dënd bi wéragut maa bëri wax rek moo tax may wax nii te man nga xam ne li may lekk si buy ak wonjo ak lekk gu xel ci muy mbuum buy wonjo nuts black seed oil coconut fruit avocado lu ne si àddina ku ma xam-xam na lu may lekk damay lekk lekk gu baaxul waaye ak maa mën a lekk lekk gu baax man xat yii yëpp saa wu ma demee Gambie depuis dee woon te man maa ñëw fii xat yàlla laa fi xam kayit saa wu ma demee Gambie li may indi si buy ak wonjo ak cere duma koy indee lenn lu mel noonu lekk bu ak wonjo yi ma indee Gambie ba delluwaat Gambie wala keneen di ñëw indil ma ko su ma néeg du ma sa ñàkk bu ak wonjo fukki xat ak ñeent yi ma dëkk si néeg bi yëpp ak sungu fi mbuum kuy xam good immune system rawuma man ak stress bu ma jaar yépp ne stress daf dee rey immune system stress mooy number one killer for immune system xam nga du ngeen di riit wér-gu-yaram bi doomu aadama li ngeen mën a riit rek mooy vidéo bu bon ngeen yónnee ko nit ñi yéen ñi dee yónnee nit ñi vidéo yu bon vidéo bu leen nit defal ngeen yónnee ko nit pour kooka ñëw def vidéo man ba man ma nexee Facebook xat yi nii ba tey masumaa yónnee nit vidéo bu ko nit di defal te duma ko mës a yónnee nit su ngeen xamee ne nit mu ngee defal nit vidéo te nit ki seen xarit la mënu leen koo kool ne ko ni xam na ko lay defal vidéo de waaye ñaan naa la bul tontu nangam ak nangam a tax bul tontu waaye nga ñëw jël vidéo ba yónnee ko ko pour mu ñëw wax su dee sa xarit la laa wax su dee sa best friend waxuma jos Facebook xarit de xëppule leen ma Facebook xarit man dama di xam over 5000 ma delete ñu bëri ñoo xam ne du ñuy communiquer ak man su ma euh, defee post duñ ko follow duñ ko like duñ xaman man affaire dama di jéem a génnee ñooñu dugal ñeneen ñoo xam ne ñu ngi taxaw di ma xaar di suma vidéo yi may def nit ñu bëgguma aad leen moo tax yéen nii ma day nekk 5000 yéen nii les right now am less than 5000 waaye li ma xam si friend list moo waaye xaw ma kan laay jël xaw ma leen vidéo yi rek ka tax di ma yónnee request xaw ma leen waaye danaa ko gën a wàññi sax is no point di xam facebook friend yu bëri yi nga xam ne duñ communiquer ak yow parce que nit ñu bëri sooy def facebook laay bëgguñ ko because ñoom xamuñ xamuñ fit wi ak bëgguñoo nekk facebook di wax nit ñi di leen xas di leen jooj léegi yow mi koy def dañ lay mere si loolu saka soo nekkee ni koo xam ne soo ñëwee facebook ngay jom bëri mel ni Ami Jóob gëmm rek wax dëgg gi ngay wax sa yoon néew ci àddina wuu ñooñu leen gën a bañ na li ñu bëgg mooy nga ñëw di kaf di ree di de nag ñàkk a wax dara lu am fayda wala jos ngay nekk di leen farale ñoom suñ xulóog nit wala suñ bëggut nit nga defar nit ka vidéo gis ngeen yéen yéen ñiy defal nit ñi vidéo dalee ko ci man defal naa nit vidéo lu lu jeex dina paas bu yàggul nii rek laa defar pandari vidéo ngir nam xendoo faatu Camara sa red sa yomba waaye maa ngi ñaan yàlla bu ma defalaat kenn vidéo maa ngi xeex nag yéen ñi ma xam gis ngeen ne wàññi naa léegi defal ngeen vidéo yi torop léegi tey ma bàyyi ko totali te from tey moom dootuma ko defati totali na pandari di jom biri keneen kuy jom biri hutil sa biri may yàlla nga ba biri ji te dox waaye dootuma continuer ànd ak yow ci biri ji biri ji laa sonn te li tax ma click vidéo bi tey du ja sonn si biri ji de suñ doom yi jomp si biri suba te ñun ñu di leen yoon ci biri ji tey moo tax ma click vidéo bi tey xam nga ñun wetu ñun ñu ci bëri dalee ko si man fañ foog ne suñ doom yi duñ def li ñuy def ndegam ñun ñu suñ ndey yi daan jom bëri ci xuloo ak defante ba tax ñun ñuy jom ci vidéo yi ñun ñooy jom bëri lu tax suñ doom yi ñuy toog di ñu déglu ñuy jom bëri ci vidéo yi ba suñ baat bi dee lu tax ñun duñ jom léegi ku bugg sa doom mu magee bitim réew gi tekki xam maana xam liggéey bu baax barke ba raw tubaab yi fi jógee est-ce que danga ko yar ci jom brique buñ jaale bi ngay def ndax doomu Adama Njaay bu sëpp ci àdduna bi ko sa doom yi ñoo ko gën ndax ko moo gën a xam la fayda sa doom yi ñun ñëpp est-ce que xam nañ ko ku ñuy farale ci Facebook bi ku gën suñ doom yi ñuy yàq ku ko xam waxal man de mosumaa def vidéo gën suma doom yi mosumaa defal nit vidéo ku gën suma doom yi vidéo bu may defal ko gën suma doom yi rek mooy war a nekk suma yaay te suma yaay suma yaay sax du may dugal nataalam sax ngir bëgguma ngeen xam ko naa ne man vidéo yi ma doon def si facebook bi at yëpp tax du may bëgg a dugal suma yaay nataalam mosu leen koo gis di jooj di wax foog ne ndax man du wax ak suma yaay lu ne ngeen di ko wax maa yeb suma yaay moo tax may wax caayal maa wax ma di leen seetaan ñi ma xam ne suma diggante suma yaay suma yaay is my best friend and he or not caay mari dama ko dee wax because baaxul te ma yaay ñu ko def sax réccu na ko xamutoon ne nii la baaxee because kenn waxu ko woon comme ni ma koy waxee nii moo tax ma génn di ko wax pour xaaye yeneen gune yi ci war a dugg dimbale leen te mu ngi seet little bit ñu bari ñu koy seetaan su ma ko waxee bay jooy sakantumaa ñu xaaye seen mbokk bu war a maye gune Afrique muy Sénégal wala Gambie ngir man looloo tax ma di ko waaye du wut yam ndey de am na yéen ñu bëri ñu waxut caay mari maa leen gën a respect ndey téeméeri yoon jarul wax lu may defal suma yaay suma digganteeg moom jarul wax look man maa tiit te jommi joog sa saay billaahi wallaahi tallaahi suma fene yàlla bu ma xeew suba ak suma njaboot yi yëpp man maa tiit te jommi ñun koo baay bi li may rey si nit bu set nga taxal news bi nga dégg million ngi nit yi dee téeméeri junni nit ak juróom juróomi téeméeri nit ak ñeenti téeméeri nit ak nangam nangam dëkk sàngam dëkk bi nga ne bitim réew sax nga dégg ñaata ñaata téeméeri nit ñuy dee nga xam de got diree ko Facebook di yuuxu bi ko sa Fatuma Fatima dëdëdë ak foos le déeg dëdëdë ak dëdëdë waxuma sax nga soo diree comme ça man vidéo bi ma def bu yàggul na handling the whole bricks in the head, what negative, the, the casting stuff. So Draco, that type of sax is still wrong, but at least it's better than Draco the Sagante. Draco the go personal. Draco the Sagante the go personal because of te nit ñi nit ñi séddoo vidéo yi ak nit ñi like vidéo yi du ma leen ba di wax li ma leen di wax waxaat yëpp yéen benn imaam du taxaw di waare ba ngeen séddoo ko wala ngeen like ko wala ngeen déglu ko one minute su ngeen ko déglu one minute board te nga ne su ngeen ngeen a bëgg a def àjjana yéen ak comme ni ma doon dundee xat yi yëpp ngeen di def macha allah pilee xar quran bi sax boog you know macha allah nangam nangam ñun jullit lañ xanga nangam nangam ñun meluñ nii meluñ naa jullit lañ te imaam bu taxaw doo ko déglu doo ko seetaan bala nga déglu lan la ba pare sànni ko gis nga man mënuma naa moo tax xat yi yëpp mënuma woon a jël jullit gi serious ngeen a foog ne ngeen ma gën a jullit maa mënul naa fekk man lu may def dama koy def fuli mbala ma bako moo tax at yii yëpp mënumaa julli propali mënumaa def dara hardly ever ma julli wax naa leen ko ba soxna sama vidéo yi yéen yéenay kan xanaa yéenay yéen mën ngeen maa dugal àjjana lu ma leen di fenalee su ma yaay sax su ma laajante da ngay julli dama ko def ne ko géej naa julli de du may julli de yaa mbaxati naa julli de waaye ñaanal ma dinaa julli ha time moo daan daan julli yëpp loolu laa koy sama mbokk yi xam nañ ma nit ñu ma xam xam nañ ma man xaduna ma koo sukkur naan ko parce que xaw ma kañ lay dee loolu moo tax àdduna mu sukkur ko mu jóg sa say yéen ñi dee séddew vidéo yi balaa maa wax ñun ñu balaa maa continuer si ñun ñu dee def vidéo yi ak isu bi xaaral ma ñëw si yéen ñi dee séddoo vidéo yi yéen ñi dee séddoo vidéo yi du ngeen séddoo vidéo lu kuy wax lu baax yéen yéen a tax ñëpp bon billaahi wallaahi tallaahi su ma fene yàlla bu ma xeexu suba yéen yéen a tax nit ñi ñëpp di saaga ndey facebook yéen yéen a tax nit ñi ñëpp toskare facebook yéen yéen a tax nit ñi ñëpp di rakkatiku di yuuxu facebook ku bëgg a baax sax du mën a baax ba pare ngeen di xas nit ñooñ ndig ngeen a feebar ngeen a niit xel xamu leen courage xamu leen fit pour def vidéo comme ni ma koy defee nii xamu leen fit boobu xamu leen courage boobu ba pare bugg leen nit ñi xas leen bugg leen nit ñi yab leen ndax nit ñi dañ lay yab dañ lay xas ñenn ñenn danañ la respect dañ jàng si yow waaye ñu bëri suñuy wax suñu xamee ne dëgg ngay wax yi dañ lay res yab dañ lay xas ngir ñun Afrique dañ mën a xaste that's the reality sooy def vidéo moom noonu la soo bugg leen a jël loolu waaye yéen a raw ñun ñuy nit ñun ñuy def vidéo barki salaatu faatiha yeneen ñu raw téeméeri fukki junniy yoon yéen ñiy seddale suñ vidéo yu bon yi wax naa leen ko yéen ku taxaw deg vidéo bu baax du ngeen faale ndeyam imaam bu taxaw di wax saka imaam yi gambien yi moom iiw jaral na leen ngeen seddoo mofti sax wala something imaam yi gambien yi faalehu leen de seen ndey sax because gambien leen ngeen xeeb leen ñu ngi taxaw foofu jël seen time di wax mbir yàlla ngeen sànni leen ba pare nag ji ne nag ni Amie Jobe jël xarquraan ba di pilee di déglu yéen lu ngeen di déglul xarquraan subhanallah look ñun dañ need help ñun ñëpp dalee ko si man man maa ngi faj sama bopp de man léegi tey ma génn si xabal leen am am almost there maa si chat bi bu leen ma gis nii aka maa mën a def dara su ko paree def nag aka mën a wax suma bopp dëgg nag man man rek ni may waxee sama bopp dëgg kenn ko waxee boppam dëgg si àdduna juróom-ñaar mën naa koo waat man te faale xuma ku ma ree ak ku ma xas yow yaa ma moom ba yàlla déppi ni nga koo fekkee ndax buñ may robi yaa fay ne lu ma yëg suma lal bi su ma tëddee suma xalaat suma tinkin yow yow yaa fay ne soo lu ma lay xalaatee di daf faale yow ba tax man du ma war suma bopp dëgg def lu ma war a dund loo xam ne suma ma tëddee guddi moo may def happiness yéen ñi nga xam ne kenn du def vidéo jàmm ngeen séddoo ko yéen tax nit ñi di def vidéo xay pour ngeen séddoo gis nga vidéo xay yi ñi koy def yépp bëgg bës ak bëgg wax ak bëgg nit ñi gis leen moo tax nothing else dalee ko si man mi ko def nothing else moo tax su kenn waxee benn keneen ki ñëw ne ko maa la dinaa la wan ne maa la gën a nekk bad boy wala bad girl wala nangam maa la gën a sañ maa la gën a ràncang dangay jaay ràncang maa la gën a ràncang man rek si ràncang taxawal tey ma wan la maay sa champion lu may laajte mooy what do you get for champion rancam lu dul jàngal sa doom yi champion rancam bugg leen a xam doom wala xamu leen doom wala palaanu leen pour xam doom in the future wala xamu leen doom rakk wala doomi mag wala doomi doomi nit ñi leen di xool seen yoon néew ci si daal yéen daal àddina seen yoon néew si allah akbar ngeen waaye xam leen ne bàmmeel bàjjo bi man de bàmmeel ma koo ragal jóg sa say xat yëpp faale ma ko woon nag waaye ba ma xamee ne time baa ngi dem montor baa ngi dem su ma ko faalee su ma ko faalewul fañ may robi digg bëccëg maa tiit te jommi xam ngeen lu tax may wax ak yéen may waxee ak nii te ñëw di faral faatu wala faral foos léegi wala faral nangam di def comme yéen di saagandey di ràncam comme na ma daan def maa xam ne dëgg-dëgg jóg sa saay koo baa onot koo baa biy ni onot nit ñi fa ñuy tëdd du ñeewu dee man suma doom ji xaritam bu mu bokkal school yaayam fa tëdd xeewut dee ci digg Angleterre ji tubaab koo xam ne jëkkëtam police la fii xam liggéey bu baax dara jotul yaay ja ba tey doom ja xel mi fa fa xalamanki ngir loolu yaay ja suma morom la gune gu ndaw tëdd di nelaw xeewut bu yàggul nii xaw ma ren gii la ndax xaw ma daaw wala daaw jéeg yàggul daal ku ci fi ñaari doomam jëkkëtam police ak yeneen history rek yu may dégg si àdduna di ko gis te xam ne jóg sa saay ak nu may ignore dee yëpp ak nu may ignore àllaaxira foog ne may mel nu ma neex ba pare dem àjjana yëpp xóor na ma ne su ma melee nu ma neex duma ma gis àjjana yàlla mi ñu wax ne ngeen di ñëw àjjana su ngeen defee lii mu ngi fa. the reality soo gisee ñun ñuy sañ li ñuy sañ di ko wax i du ñuy julli mbala suñuy julli faalewuñ julli ma ragaluñ yàlla doomu aadama njaay gërëm ñu ak bës moo gën a lu ne that's the reality. moo tax ñu di ko def ñun ñu ko de ñëpp also suñ culture bi moo ñu toroxal dóor ñu xas ñu toroxal ñu bañ duggee gu ne bañ tërkis ci xasteeg dóor ak miti moo tax ma ko dee wax ba sonn ne ñun fu jaar ñu bàyyi suñ gune yi ñuy jël di leen xas di leen dóor di leen maye bañ duxee guneeg di leen métital di leen abuse gune ga su magee fay suur xaduna suur doomu adama njaay tërkiis te ñàkk jom te te du faale dara mu jël xaduna ba yëpp sukkur ko naan ko nag ni ami jóob mu sibutu toog nag ñu di ko robi nag mu toog hey xaduna gis nga ñun ñun ñuy seddale vidéo yi ba tey si ñun laay ñëw de yéen ñiy seddale vidéo yi leer na leen ne ñun ñi koy def ñëpp nit xel dalee ko ci man xóor na leen ne yéen ku leen fayen junni pound bi réew mi ma ne nii pound sterling la Angleterre ku leen fayen junni pound right now te fekk xamewu leen butul seen bank account hmm? ne leen ñëw leen saaga ndey def vidéo saaga ndey def vidéo ŋàññi nit wax wax yu bon du ngeen ko def jaral na leen ngeen xañee puréej ñàkk ba xañee puréej seeni néeg bitim réew gii hmm? puréej bu xamul soow da ngeen ko naan waaye du ngeen def Facebook live boobu léegi lu tax ngeen di ko séddale keneen mu ko def loolu laa leen di laaj ba tey de ifin bol balam ba ngeen daan séddale sama vidéo yi bon yi ma daan def sax dama dee ñëw laajaat leen ko ndax man vidéo yu bon dama ko dee def waaye dama dee rus te sama bopp lu tax ma def ko musuma def yu bon ba hëpp tuuma jóg sa say saaga ndey benn yoon la ma nit sa saaga lay seet ma mer ma fayee ko waaye yeneen yu bon yi ma de saaga ndey on just attack nit or wax nit ne ko yow nanga ma nanga lu ko nii nii you know ma ko defaan dama dee rus te dugg di du ma mën a nelaw su ngeen ko seetloo sax moo tax afta dama dañoo génnee ko ba pare ma ñëw di leen wax ne nañ leen ba nu ñuy def suñ doom yi tey bu ma ko sax xam naa ne dama need help man lu ma dimbale mooy dama dee xone sama bopp balaa kenn di xone si man gis nga yéen su ngeen seefut seen bopp from seen miserable life bi ngeen ne bitim réew fii ak Afrique yëpp ñun african ñun tricoté bi yëpp ba traumatise ba toskare yéen lañ dund suñ seefut suñ bopp xam ne ñun dañ need help ñu faj suñ bopp kenn duñu faj kenn duñu seef nit ñi ñu war a séef dañuy puus ba pare ñii dañu daw ñii dañu puus façon ñaari nit ñoo lañ xam groupe bi dañu daw da xam ne dañ nit xeer groupe bi duñu puus ci suñu dof gi ñaari groupe bi rek lañ xam fenees nothing else léegi kan moo ñuy séef suñ bopp ñun ñoo war a xam suñ bopp xam ne li ñuy def du dëgg du yoon ñu seetaan suñ vidéo yi clique ko seetaan ko gannaaw boo fiilee dat devil dat dat demon dat evil happy di demon bu ngay xam fii soo defee lu bon wala sooy seetaan lu bon gannaaw boo fiilee happy bi because of that ba pare nga ne ha ah, dëgg dëgg man war naa am jom te rus te xam ne lii bugguma suma doom def ko ëllëg bugguma suma doom seetaan ko ëllëg bugguma suma doom xaritam gis ko ëllëg di xool suma doom ji ne su ne ko yaay ne ko yow nekk sa yaay nii la mel di ko ree di ko jooj bugguma suma yaay Gambie xaritam gis ma xëllëg bugguma suma rakk gis ma xëllëg bugguma suma noon gis ma xëllëg bugguma nit ku ma bugg sax gis ma gis gis ma ci vidéo nii xëllëg ki simit fukki at si kanam su fekkee deexuma maa ngi dund wala ñaar fukki at si kanam wala ñeen fukki at si kanam fekk ma màggat toog si ron mango yi est ce que bugg naa a gis ne lii rek suñ communauté bi lii rek laa si contribuer parce que ñun ñuy wax ñun ñu bëri xamuñ dara luñ contribuer suñ communauté loolu wax ci ku xam dara waxal man de xaw ma man xaw ma lu dul suma Facebook live bi xaw ma xaalis hardly ever ma ma def any GoFundMe GoFundMe bu ma gis Facebook ma koy seeromb ko hardly ever ma click sa maye click naa maye GoFundMe waaye bëriwut yenn yenn xaw ma xaalis single mother laa xaw ma xaalis maa ngi ne ngéej lu ma dimbalee mbokk yi Gambia ak suma doom yi fii part time lay liggéey lu may dem di jël xaalis bu ma xam di di ko di di ko dem naan maa ngi bil tabax school Gambia wala dimbale lopitaan yi wala dem loo fare Gambia luñ xam rek mooy wax ji wax ji nag aka mën a dimbale nit su dee wax ju baax la les bi réew ñun ñëpp doomu aadama njaale kenn mutu ñun ñëpp dinañ def lu bon nit soo traumatisé sa mind bi su dee dafa dafa destroy ko sox li nga dund dafa yomb pour nit ñi nga topp nit ñi ci lu ñuy def lu bon lu nere nga nga topp parce que yow yaa ngi ut easy easy pour nga escape coping coping skill ngay wut dara loo xam ne mooy génnee sa métit bi loolu rek ngay ut xam naa lii moom laa dund xat yi yëpp su suy musique la woo wala dem night club woo wala jos su fekkee ne da nga bugg a jënd wig sax wala robb soo xamul robb boobu doo nelaw da ngay ne robe bis ma ko jëndu tey du ma nelaw ay nit adresse ma xel maa si robe boobu man daa robe ba ma gis na le waaye robe bi bugg naa ko waaye nangam bis ma ko mu du ma am jàmm waaye di waaye waaye waaye bi waaye lii nii doesn't matter what is it so lu nit ñi di def loo xam ne so ñi suñ ko defee nit ñi dañ leen di tàccul cherish leen hmm? pour pour nit ñi ne Ami Jobe moo fi toj ay yow rek man nit ñi wax nañ ma ko ba sonn gis nga nit ñi séddale vidéo yi barki salaatu faatiha nit ñi jaru ñuy julli nit ñii buñ deexee danañ la yog yàlla billaahi wallahi tallaahi bu dee àllaaxira xam na danañ la yog yàlla nit ñi kool nañ ma ba sonn time bu ma daan def vidéo yu bon di attaque nit su nit defee dara comme ça façon isu bi tey ma ñëw par exemple faral benn faat bi wala nangam nit ñi dañ lay kool ni la Ami Jobe yow rek yaa fi toj tey li nga wax hey kenn du yow very good baax ni rek a baax si moom man wax nañ ma ko ba sonn ñenn ñi sax ba ñuy muuru ibaadu boobu nga foog ne jullit lañ war laa jàngal yàlla war laa wax ne la Amie Jobe bugga naa la de waaye sa vidéo bi tey waruloo ko woon a def ndax yow lii dafa xaraam ngay ñëw di ŋàññi sa moromi doomu aadama njaay wala nangam nangam wala yaa ngi wooyee nit ay tur yoo xam ne xamoo ndax loolu dëgg la wala fekkee ko xam nga yàlla fa ne bala nga wooyee nit nga ko war a fekkee mu di ko def bala nga wooyee ni sàcc nga ko war a fekkee muy sàcc mobile ba wala di sàcc dara nga gis ko ak xam ay serne balaa nga xooxee ni dara bala ngaa def lii ba pare yàlla jos foog naa ne si xarxuraan bi xaw ma xarxuraan lu bëri de waaye according to waare yi may déglu yu not alaatu ŋàññi sa moromi doomu adama njaay yu bon waaye borom dafay nit ñi dañuy ñëw daal dina la yaa fi toj hey yow tey you make my day kek kek kek aka man nit ñee ma call ne ma you make my day Facebook Messenger aka call yu bari yi ma ci am xam naa ci yenn yenn call nag ñoo xam ne wax nañ ma ne Ami Diop bul dee def lii Ami Diop bul def façon vidéo yi yow nuróowuloo façon nit kii Ami Diop xam naa ne live dafa xaar yaa ngi nekk sa doom yi foofu on yàlla baax na yàlla dina la may jëkkër bu baax waaye bul def façon vidéo yi bul bokk si façon seytaane parce que salaatu fatiha maa ngi bëgg a jooy sax xam naa nit ñu ma wax loolu xam na nit ñu baax Facebook de soo warumaa fàtte loolu waaye ñun doomu aadama njaay suñ mind bi dafa soo evil mooy suñ worst enemy daf dee easy pour nga topp ñu bon ñi xam nañ nit ñoo xam ne dañ wax ne la yow yaa fi toj yow rek yaa fi toj su nekkutoon yow next time de sooy wax sa waxal nangam waxal nangam diw sangam nangam nangam man sa xamal naa ko nangam de nangam nangam next time nga wax ko billahi wër kitaabi ni ay nit wax nañ ma loolu du jeex du waaye man maa nekk ni ko xam ne nit ñu may defal vidéo yëpp masu leen a dégg ma ne diw sa ndey nii sa baay nii wala yow nii nii nii digoo tout personnel dama dee wax rek about the issue lu nga def ak lu tax waroo koo def you know da the finish waaye nit ñi dee séddale vidéo yi ak nit ñi dee kool si ron ñoo raw nit ñu feebar ñi ba mënatu ñoo muñ seen feebar bi ñuy ñëw Facebook ñi feebar te mañ koo muñ toog si biir bi di ko muñ ñoo hëpp billahi wër kitaabi te lii moo tax duñ ma séddoo nit ñun ñu ci bëri soo ñëwee toog def vidéo jàmm for exemple di wax mbiri how to get rid of pain wala how to do this wala how to do that wala how to have a happy duñ la faale waaye soo ñëwee di wax waxi walla nga ne par exemple nañ bàyyi xeesal xeesal baaxut <laughs> xam nga soo waa si loo tax moo bëri ennemi <laughs> ñu ne oh iñaan naa fexa depressed confused comedian man xam ne ñoo xam ne ma defal vidéo sax di def seen bopp jël seen bopp xeesal de ko amul njëgam doo ko def waaw xeesal dafa nice te ñu lay am njëgam moo tax ñu di ko def vidéo pour ma gis ko ñoo xam ne suma Facebook friend la ne man la ñuy ñaaw xamuñ ne man ma sukkur suma àddina naan ko suma rakk yi sax ku si commencé xeesal ma lay xas ba nga bokk ñu ma bokkandee ak bàyyi ak suma rakk yi ma bokkandee everybody man suma lay xañ nga ba xeesal war da gotu duit ma laa bañ ma laa xam ba di la bañ man lu nekk laa day tokk about child marriage xeesal dëdd baay yu bon yi de góor yu bon yi de topp jigéen yeeg nangam nangam whatever waaye suñ community bi ak ñoo mun a développer ñu enemies ba pare suñ community bi naa man ku mel ni Ami Jobe rek moo mun a survive suñ community parce que man maa sukkur àdduna gis nga man dama bëgg na wax sama expérience ak first lady bi si boppam gi nga first lady bi call yi ñuy wax ne daf koy la video call daf ko def man def na ma video call tamit mun naa foog naa benn yoon la nag ak Karemba def na ma video call loolu dëgg la wax naa leen ko suma vidéo yi tamit gars yi may nañ ma seen xar yu ndee mayee noonu ak sukkur ak soble ak wax yi waaye a ma demee Gambie foos lidi bi invite ma dem state bi seeti ji ko sporté bi may mu benn xaalis ñaanu ma ko benn xaalis man a suma rakk ñoo àndoon waaye dinaa leen ko wax fii tey ma yóbbu ma pour ma nuyu baro ma dem di nuyu baro su fekkee gis na vidéo bi moo baro xam nañ li may wax bu ma demee nuyu baro mu xëcc ma si saa si parce que man dama nuyu baro rek commencé ne ko bu ma ne fekk baro mu ngi toog a beneen góor te toog ci seen saal boobu noonu xam taabul bu gudd boobu mel ni ki ngeen kuy taabul yooyu nga dox si saal bu gudd bi nii saal bu gudd buñ décoré guy naay yi nga dox ni tàllal dem si beneen saal boobu noonu foofu noonu la waaye moom daf ma yóbbu si néeg bu ndaw bi nii si state house foog naa loolu du néeg bu ndaw la ma yóbbu si state house dafa mel néegi xeendookaay nii am soofa bu ndaw nii ak télé nii rek ba ma julli ko sax maa suma rakk bu góor ñaan doon ñu jox ñu benn cin bu neex bu xam yàpp xam sipa sipa xam lu nekk ak ka neex cook bi sénégalais la jigéeni sénégalais bi gis naa ko doomam ju jigéen ji ku xam ay seven xaw ma gis naa ko first bi gis naa ko invité ba këram time mu doon support ji këram xam nga fu ma yàlla dimbalee mooy bu ma first lady bi maytee benn xaalis xam nga foto di may def xaalis woy suma faar yi danañ métti wéreguma wéreguma bu baax de xaw ma koo baay bee ma dal xaw ma wéreguma bu baax foto bi bu ma maytee xaalis fa la ma yàlla sutura foos na di boo gisee bi thank you very much keroog ba ma moytee xaalis yi maa meroon barki salaatu faatiya maa meroon ba may ñib si meruma woon what am I talking about I swear God meruma woon mer mer mer I was a bit disappointed a little bit waaye meruma woon mer mer billahi wallahi taala xam ngeen mënu ko dama leen su ma rakk moo meroon hii parce que ma rakk dafa jëloon xaalisam bu bëri jënd pétrole ba raxas motoom bi def yëpp naan ma ñu ngay dem ami pour nga gis foofu la di so my God mu ngi soo excited xam nga man bitim loolu laa dëkk faale mooy di foofu la di not joke society maa maa suma life is ci kew nguur gi mooy suma foofu la di Angleterre nguur gi semaine bu ne ñu fay suma doom yi fay ma suma working tax crédit suma lettee suma lettul maa ngi sa waay faale ma foofu la di woon waaye nu ma demee num ñu welcome woon ak num ñu traité woon I was a bit disappointed with that it's not just about the ñàkk a may money thing su ma rakk ma dafa foogoo ne daf ñuy jox enveloppe of whatever xam nga danga di dégg ni ñu naan daf dee may enveloppe so ba ma fa demee ñu jox ñu wonjo wonjo bu neex te ric you know sax sukur xam nga man sukur su bëri si rek laa bëggut su ko passé ak a wonjo bu neex te ric sedd neex ataaya xam na geneen góor gu doon ataaya ak jigéen bu tudd neene ku dee nekk si ku dee nekk diggante moom ak nit ñi ku tudd neene jigéen bu xam yaram nii moo nekkoon di koolante man diggante man ak moom ak foofu leen yu ba bañ xeet si mu ngi foofu ak beneen jigéen ku ko doon defaral boppam bi ku ko doon xaw ma defal hinna fuddan si boppam bi mu ne xaw ma kooku rakkam la xaw ma mbokkam la daal ak beneen jigéeni sénégalais coupe bi ñun ñëpp fa nekkoon si néeg saal bu ndaw bu ñu indi noonu du loolu foog naa du saali boppam bi de benn saal bu ndaw bu ñàkk fayda la nii rek comme indookaay saal nii si kono bi te nag day dugg si ñetti bunt foos buntu mag bi pulof beneen bunt andeen nga soog a dugg foog naa si moom buntam bi something like that mu ngi xam beneen si kawiti beneen góori solja si beneen góori sénégalais si bunt bi laas bunt bi after that nga soog a dugg si seen néeg mhm. léegi ñu dem foofu noonu gars yi jël suñ mobile yi seet ko xamee suñ mobile yi xamee saay sama baag après jël sama mobile yëpp ñu dugg noonu ñu waaye first lady bi lu taxoon man I was bit mooy lu nekkoon si téléphone bi trop dafa xamoon call sax Nigerian président bi moo ko kooloon mu tëb mel ni Ami Diop dafa mel ni Ami Diop nag dafa very babuli man xam naa ko xam ku ma benn cousin moom ñu doon liggéey benn place xamee wuñ ko lu bon ñu ne dafa nekk very babuli temps bu ñu doon liggéey affichage te loolu gis naa ko kooku noonu daf ko koor rek mu tëb wadd saa tëb <laughs> ni ami jóob xaqataay <laughs> xaw ma lan lan lan daw dem si biti wax ak kooku noonu si biti di ma ñu ñëwaat mu ne xaw ma dafa war na dem na jiya sax ndax xaw ma lan la te lay dala du ma def waaye dafa nekkoon di seetaan film te xam nga man dama dëkk Europe miinu ma nit seet la ngay seetaan film faale woo nit ka soo mu ngi tegoon xaw ma film indien la xaw ma film américaine something like that daal xawma soob la xawma di seetaan loolu noonu plus mu ngi nekkoon si fuunam bi like mu ngi doon waxtaan ak ñun but it wasn't like proper like def ñu like nit ñi ko seet si lañ daal you know like parce que mu ne daf ma like moom ak jëkkëram parce que dañ gis ma di leen dimbali di def sama vidéo mooy time ma daan dimbale UDP noonu so su fekkee ne par exemple gis na maa ngi dimbale UDP di wax sama vidéo xam nga am i wax rek la mun xati nga tey suma ndey masha Allah toog wax waa nawa di leen léegi su ma ñëwee kay at least nga wax ak man moon moon ma time waaye nga nekk di seetaan télé nekk di defar sa bopp bi ba pare jigéen mu ngi toog nii télé baa ngi nii man maa ngi nii wax suma rakk jigéen baa ngi ko defar bopp waaye mu si téléphone bi mu ngi si télé bi di seetaan you know like ba pare suy wax ak ñun daal daf di wax ak ñun but it was like hmm, kind of wax it wasn't like normal comme te xam naa ne dafa babuli moom Amie Jobe waxee gis naa ko bu mu bu mu yokkoo nu mu tëbee yuuxu nit ñi ko xam wax nañ ma ko xam naa daf doon jéem a play classic rek what am I talking about so that's fine you should be classic you are first lady but mënuñu woon daal just this humble just this dafa xaloon a téye boppam di xaw di ji di lu tuuti daal yi na la so loolu ay dina happy boy buñ doon ñibbi suma rakk mu ne what after after ñu toogoo ba si kanam <laughs> suma rakk ba léegi dama ko dee rees lool ñu toogoo ba si kanam mu yóbbu ñu pour ñu nuyu président yi ma ne ko ah man de dama bëgg a ñëw ñibbi ne waa kaay leen fii mu yóbbu leen ngeen nuyu saay xam nga lu mu waxaat ngeen nuyu mista xaw ma ngeen nuyu nu mu ko waxeeti ñu dem bu nuyu ko fekk président mi ngi toog ak góor ak seen taabul bi seen taabul bu gudd boobu noonu xam beneen taabul bi ransale ay lekk fële ne le comme lekk pat yooyu noonu di am sondeel si ronam noonu ñu ngi ko ransale fële ba ma doon wax ne ah ñii dee seen kër yi kon bëri na lekk su dee lii lekk si ne andeen ma nuyu président waaye ma nuyu président bi mu ne ko ndax xàmmee nga kii fekk président baa ngi sonn ba mu ne daf doon fay bori xoor mooy jos after xoor bi juróom-benn fan yi ñu jëlee noonu after weer koor mu ngi sonn tax wiig nag nii ne yaa ci toog di wax ak góor gu xamal lu ñu doon wax de ma ñëw nuyu ko mu ne ko ndax xàmmee kii mu ne ko ah, kii xàmmee ko bu baax de mel ni xàmmee naa ko mu ne ko mooy am yow ku dee def vidéo di la di la support Facebook sa comédienne bi am yow mu ne ko ah mu ne ah ami nice to meet you jox ma loxo ñu nuyante. ma ne ko oh nice to meet you you know thank you you know xaw ma naka well done you're trying something like that but I want you to focus on the healthcare xam nga man moom sama sama laaj bi maa ma ne ko I need you to focus on the healthcare because that's what the haters are using to criticize us I want you to focus on it so we will have something to say against them. jabaram xëcc ma comme ku xëcc dëmm xëcc ma nii si loxo la ma de xëcci ma pour ma jógee fi may wax ak kooku noonu dem. so may wax dama doon wax mu may ci may wax di wax mu may xëcc may wax ma <laughs> ba si bunt bi nga man moom ma ne ko dañ la dee support su fekkee ne nekkoo di defar lu lu nit ñi wax ba ma ne ko sax also focus in the on the youths create some job for youths da da da focus on the healthcare da da da so we will have something to say when the talking loolu moom gaaw yi wax naa ko te gars yi suñu gisee vidéo bi danañ xam sama bàmmeel lay waxal koo bàyyi or not su duutoon koo bàyyi si sin sax nit ñi bañuy nelaw dee su la yàlla su ko neexee nga génn moto ray la su la neexee waaye buñ génnee nag su ma rakk mu ne ma hay su ma rakk mu ne ma caa soo ñuy joxuñu benn xaalis président ñu ñëw bàyyi seen loxo rek <laughs> ma ah, <laughs> turam dana ma ma ne ko ah diw faale ñii mu ne waa xaay kii jabaram joxuñu dara moo tax joxuñu dara waaye ñi ñoo bàyyi seen loxo ñii vidéo yi leen defa ma ne ko man vidéo yi defuma ko woon pour ñi jox ma dara man dama ko doon def pour gambien yi bàyyi xaste buñ koy xas dafa ñëw xeex ñu dimbale ko mu support mu defar réew so ñoom ñoo ko gis rek lijjanti si na ba contact ma ba wax ak benn góor seen agent bi ne ma force de a sa namba wax ak yow ma jox ko sama namba mu call ma wax ak man doon def sax xam ne xalaatuma ne dinaa mos a wax ak force de in my life ay non waaye man maa ngi yaakaaroon sama moto bu ma jëndi jënd isa ba pare raxas sama moto bi caa nangam nangam ma ne ko dinaa la jox xaay doon woon noonu la atan maa jox sama rakk sax xaw ma fay xonne laa ko jox ma taw nga ndala si <laughs> fekk dafa bàyyi liggéeyam bi keroog topp ma <laughs> ba nu may ñëw si ba bu seet mu ne ma yow sa boole bi dafa bàyyi la wax ma ne ko déedéet ma ne ko oos mu ne ma ah ay ah, bàyyi waxaat turam ma ne ko déw mu ne ma ah ma ne ko nga kii lu ma joxu xaari baax na si mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ma ah ma ko parce su fekkoon ne tey jox na ma xaalis xëllëg ki si bi su gars yi nekkul di def nguur gi lu baax duma ko mën a dimbal duma mën a wax dëgg lay wër kitaab lii laa suma rak mu ne ma xam nga yow da nga yow nekkal fii di jéem a xalaat waxi dëgg yow nit di a xalaat ni ñu amee nga naan dëgg yow da am problème ma ne ko déedéet ma ne ko lu ma joxu xaalis bi nii yàlla moo xam man ban façon nit laa ne man su may dund loo xam ne dëgg dama dee guilty du ma dee nelaw guddi te loolu dama ko am billahi wala tala is from lu ma dund métti du ma dund gróoy na moo tax man su may dund loo xam ne nii du dëgg du ma dee nelaw te su ma waxee loo xam ne waruma ko wax tam du ma dee nelaw noonu laa mel bu bu leen ma gis nii lu ma neex waxat yi parce que su ma waxee ma nelaw loo xam ne nii waruma koo wax nii comme ñeneen ñi ni ñu defee di saaga ndey nii and def naa ko I couldn't sleep at night at all waaye su ma waxee dëgg dama dee tëdd nelaw ñi bañ ma seeboo nit ñi bëgg ma su ma yenn si su may togg damay fecc di woy di fecc su may sangu di woy di fecc xam ne I tell the truth so afternoon suma rakk you know feel let down and stuff afternoon and then first lady bi sànni suma ndey and then koolatut ma nuyootut ma after that buñ mitee after that ma ne foog naa seen naa ko message nice to meet you da da da kuyuwut ma bu ma doon ñib si bu ma doon waaj a ñib si ma càng ticket money pour ñib si xaw ma woon ticket money pour ñib si ma send force daddy bi euh, message ne ko man de am struggling here for ticket money da da da something like that I can't remember and I need some help to to go back to to UK loolu moom dëgg la seen naa ko message boobu noonu faale wu suma ndey sa ignore ma you know again yàlla mu may protect rek mi bi and then suma beneen followers suma ñaari followers yoo xam ne day loyal to me buñ ma doon bind ne ma ami lu tax ñib siwloo ma ne leen dama cang ticket money parce que xaalis ma indi woon fii yëpp laa spend si famille bi ceet laa ñëw su ma jarbaat laa doon muur xaalis bi yëpp laa spend ba xamatuma ticket ma ne pour ñibbi te one way ticket laa ñëwee woon so gars yi dimbali ma keneen ki yónnee ma 6000 keneen ki yónnee ma 5000 ma lijjanti lu si def jënd ticket bi it was 28000 something like that by Air Morocco suma xarit bu nekk bi tam ma kool ko mu lebal ma xaalis boolante yëpp ak suma jarbaat bu nekk fii yëpp ma boolante kobomba yëpp kobomba yi ma xam yëpp ba mut ma jënd bu ñëwee ma lijjanti fay gaay yi ma ne ah tam goor ne foofu la di joxul ma xaalis parce que su fekkoon jox na ma xaalis loolu mooy zip na ma soo yéen ñu foofu la di joxul xaalis sant leen yàlla su leen joxee xaalis hii mooy ne zip na la suy def lu mu def léegi doo ko mun a wax wala soo koy wax danga koy wax waxi ragal ko you know doo bëgg lu ko mer loolu te xam nga ñu nit ku ñu bëggul ku ñu wax dëgg loo wax rek ñu mer te su boobaa da ngay xam ne soo waxee dafay mer su boobaa dangay ragal soo foo ne video call bi ñu waxee daf ko dee def dëgg la man expérience naa ko video call na ma waaye bu ma video callee nekkutoon di ma jëw wala anything non daf ma vidéo call ñuy waxtaan rek mu may encourage yëf yi nu ma nekkee single moo da naa try moom jëkkëram bu mu tukkee woon sax nangam nangam la daan def daf di try di nekk guut si nangam nangam la daan def moo xaritam bi ñu nekk best friend nangam nangam man yàlla naw may jëkkër bu baax naa muñ façon wax yooyu la doon wax ak di wax ne moom daf dee like indian movie loolu la dee seetaan ay indian wëy yeeg indian movie something like this ok so and then wax naa ko I don't know why nit ñi di hit sa government bi di leen criticize rek this is crazy mu ne ma I know we are trying our best waaye nit ñi xamuñ ne this is hard we don't ñëw si dëkk bi fekkuñ fi benn xaalis you know so Mr President daf dee liggéey guddee bëccëg di try man tam dama dee try guddee bëccëg but it's not easy waaye nit ñi xamuñ ma ne ko ah loolu kay dëgg la nangam nangam and then ñuy waxtaan jëf yëfi live loolu rek lañ wax na jóg sa say waxuma woon mbiri nit jiwut ma jiwut kenn man tam ma kenn ñu waxtaan normal wax so waaye léegi xaaral ma wax leen nag lu tax nag First Lady problème ak faatu ñun ñu war a xam luñ siy doxee ba pare just in general First Lady not of ak Fatou or not ñun ñu war a xam ñu war a wecc suñu àdduna tuuti suñu yenn Facebook live yi ñuy def di di di di wuti ak nit ñi koy séddale di wuti brique tam lu tax ñu war a basin séddale mi di wuti brique suma bopp baa ngi métti sax wéragoo bu baax ba tey de warumaa ne di yuuxu nii soo damay wax lii bala maa dem ñun ñi nga xam ne ñu ngi dimbale force leader bi ñi nit ñi ko dee dimbale groupe bi ko dee dimbale ak groupe bi ko du dimbale xam nga ñooñu ñoo nekk si ci ñoo ñoo nekk jël problème faatu bi ñaari faatu yu xenu ko mooy group bi dimbale force leader bi ak groupe bi dimbale force so groupe buy dimbale force leader bi dañuy dimbale force leader bi for different reason ñenn ñi ñu ngi koy dimbale bi ko force leader bi daf dee kool moom te daf la dee may ay xar ay saako sukur saako soble 20 litre diwlin saako maalo yëpp daf la ko dee may taay mi weer koor ni ñu indi la ko taay mi julli tabaski tam mun nañ la ko indil xar bi loolu moom dëgg la expérience naa ko man weer koor bi indi nañ ma tabaski bi indi nañ ma ku dee sa bàmmeel so yooyu noonu rek man yooyu noonu rek mënoon na maa kii ba ma continuer di ko farale forever waaye nag man bu ma demee ba boo dem seeti ko noonu number one lay kasee lu ma séef mooy mayit ma xoon xaalis <laughs> life is too number two ma gis lopitaan yi ne daal nit ñaa ngi dee suma ma rakk xam doom ma yóbbu ko gis lopitaan bi condition bi ni mu mel non ma gis ne daal lopitaan bi ni ñaa ngi dee ba tey ndimbal xamut nit ñaa ngi sonn ma dégg different story kii di wane suma rakk dafa dee bi ko so nangam suma mag dee bi ko so man tam suma yaay ñaari rakkam dee because of lack of health care ma ne lii de fi mu ne def na si man ma continuer di farle nguur gi mbala mu wax dëgg ne dañ war a defar lopitaan yi moo tax ma def vidéo yi ma def noonu boo jógee Gambia di di wax benn sax mbubb mii laa solo di jom ci nguur gi ne nañ defar lopitaan yee nangam nangam mere leen saka bu ma déggee Adama Barrow def vidéo naan def ko def meeting naan moom xam na xaalis boo xam ne su génnee si nguur gi sax ku ñëw danga mën a xamee nguur gi lu mat juróom benn weer xam ma juróomi weer te moom fa bugg su génnee mu ba fa xaalis boo xam ne ku ñëw wan yee danga ko mën a xamee Gambia ma ne what muy wax naka la développé kee si nguur geeg naka la lii lii lii ma ne ko yow lopitaan yi ni mel ni ni gent ni penc muñ jaale xamul lu du paracetamol ak chloroquine nga naan sàmbate ko la ñëw salaa ñëwoon noonu di jombre waaye ñun ñu dee dimbale daf dee xaat pour nga wax dëgg waaye parce que like I dimbali nga daf di ànd ak bénéfice ñuy dimbali dimbali mu ñu nit ñi xam si dimbali mi ku ci nit ñi xam rek yaa ngi si risi bénéfice loolu moom dëgg la expérience naa ko léegi thank you so léegi nu ngay def mooy instead of ngay xalaat jo saako sukkur xar xarme yeeg nangam nangam wala yenn suñ la ma xaalis sax boole si far xam nga mu gën a neex xalaatal rek ne i da nga wax dëgg bi you don't atu saaga you know mun nga dëgg bi rek ne gars yi nañ defar lopitaan yi man suma maas yi mooy suma main problème xam naa ne Gambie li ñu war dafa bëri na bëri na ba xëpp waaye lopitaan yi mooy suma main problème even benn lopitaan yi Banjul bu jàkkaarloog ñoom seen buntu kër rek buñ fa fookasoon gannaaw Adama Barrow dafa mas a dem bay robi ko mukk waaye bu fa bu ko defaroon bu fa dem tut mi toog fam toog defar ko ba ku fa dem xam garab ya nga soxla xam xam xam opération ya nga soxla xam docteur yu baax ya nga soxla xam machine ya nga soxla ah nu konoon su ma yoon néew si ma continuer di leen support jox doo sin mata jox ma saako maalo xar o man xar yi ma bi yëpp dama dee di jënd suma yaa xar xar julli gu jël so doo sin ma xar o soo léegi ñun ñu dee dimbalee lay kay seet sama bopp baa ngi métti sax de fu mu jaar rek ñu xam ne doo seen mata saako maala or not yow sa mbokk yi seefuñ ñun seefuñ kenn seefut ku fi dem Gambie holiday ku ne soo feebaree soo xamut ay junni ay thirty forty thousand fifty thousand yooyu fayee private hospital ngay dee sa yaay sa mag sa rakk ya ne foofu yëpp fu ñuy jëlee private hospital xaalis te private hospital ya sax baaxuñ nga Sénégal lañ dee dem private hospital Sénégal ak a seer man xam naa ñaari famille member yu fay jee loolu beneen famille ba boo xam ne dañ ko defal opéré Gambia boppam bi dafa am problème xam lu nekk si boppam bi lu fa warta nekk ñu defal ko opéré bu Gambia laaluñ bopp bi sax dañ ko opéré pare ñëwaat ko noonu laaluñ feebar ba sax feebar bi bañ ne du ko bàyyi ba dafa xam ñun ñëpp ñu teg xaalis 75000 dollars si la fay Sénégal ñu opéré boppam ba Dakar si private hospital yi génnee feebar ba teg ko si palaat mu nekk dara lu weex lii wax naa leen loolu si du jeex ñu ne ko bi bañ ko opéré laaluñ feebar bi si kaw rek lañ xem bàyyi dugguñ si biir ba génn luqati feebar ba génnee ko taaj ko loolu yëpp man ma xam ko for exemple génnee xaalis fay pour kook noonu ñun ñëpp ñu dajale famille bi yëpp fay pour kooku ma gis ñeneen ñuy dee gis suma yeneen ñaari mbokk yi dee dem Sénégal di faju ji saa yu ne ah gis suma yeneen ñaari rakk yaay yi dee gis ñeneen ñu seen mbokk yi dee ma noppi teg for exemple di farle nguur gi bi ko sax saako maalo wala enveloppe walla xar mënuma ko su ma gént duma ko may su ma tëddee ma nelaw soo léegi su fekkee ngeen di farle it ngir ngeen di farle rek duut saako maalo ngeen ko bugg rek ngeen ne ngeen di tabax seen réew good kon lu tax bugg leen lopitaan yi nga xam ne mu ngi koy sàgganee di namba wan lu tax nit ñi di ko wax di ko di ko ngeen ne nit ñi fañ bon wala nit ñi bugguñ ko wala nangam lu tax du ngeen ko wax mu defar ko ndax ngeen ko ko wax faalewut leen léegi su fekkee yéen yéen a ko koy leen kon ndax est-ce que loolu nguur bu baax dana ko def nguur boo xam ne yow tey boo fay sa dëkk ba danga dee boo amul xaalis sa yaay sa maam sa juróom-ñaari maam yi sa rakk sa mag sa everybody ku feebar tey su xamul xaalis bu dëgg bu muy demee Dakar su private hospital yi dafay dee est-ce que nguur googu kon bugg na te nguur ga toog fa faalewul loolu nguur gi tali yi muy defar nii millions yam ca def bu ko defoon lopitaani Banjul tey lopitaani Banjul la nga ni peme konoon tey xam nañ docteur yi soxla xam garab soxla yëpp ba ku dem faj la nga mel ni peme mu commencé si yeneen loppitaan yu ndaw yi lu tax muy tali ay tali ku xam moto yooyu dawal ci tali tali boo xam ne ku ci am accident yàlla tere traité ko fañ ne robi hôpital bu la ñëwal sa tànk ba sax doo ko xam anyway léegi man su ma yoon newu ci tali bu ko defar rek lopitaan yi man maa sonn ci nguur gi sax ak wax en général su may waxati rek xam ne lu ma jëriñ lay wax ak jëriñ suñ communauté bi comme ça nañ leen jéem a seet nu ñuy génnee ci métit neen leen jéem a seet nu ñuy yaree suñu doom yi ñu barke bitim réew génnee ñu si poverty génnee seen bopp si poverty ne leen seet nu ñuy xamee healthy mind wax yooyu moom a jaral wax fa war na wa dama ko daan wax fa war na wa waaye dama si daan boole politique yi yaa ngi booleetuma ko si soo gisee ma dugg si lii fa ëpp te ma xam ne yéen li ngeen commencé ni lu ndaw la parce que kii fay def vidéo niti foos la di bële def vidéo niti foos la di bële ak niti faatu kamara yële def vidéo kële yi def vidéo kële yi def vidéo loolu ngeen di ràng ba ba moo tax ma ñëw man nag mënu ma leen teree def dara continuer leen def lu leen neex waaye the consequence of li ngeen di def laa leen di wax si su fekkee xamu leen doom kon bu leen xam doom su fekkee xam ngeen doom kon tiit leen te ragal léegi dama leen di wax lii lu tax ma wax loolu ku foog ne nga xam doom te foog ne sa doom yi duñ copy sa madness bu ngay def nii it's just a matter of time but 90 percent chance danañ ko copy billaahi wallaahi tallaahi soo ma weddee xoolal doom joo xam ne dafa yaroo si kët gu xiw gu baax gu noppi gu jullite gu baax est ce que doom yooyu da ngeen leen di gis ñuy nekk di def yenn yi doom joo xam ne dafa yaroo si kër gu ràncang gu mën a defante mën a xuloo mën a wax mën a defante est ce que doom yooyu ñoo nekk ñun ñu dee def ni ñuy def ni wax leen soo léegi yoo sa doom yi lu tax mel noonu dëgg la suñ doy bitim réew du ñu dee toppandoo ñu si bëri si suñ maat ne si parce que xam nañ ne dañ ñuy xel waaye lenn la ñuy toppandoo suñ sañ wax gi suñ sañ wax geeg suñ saaga geeg suñ xaste geeg suñ suñ ay doon kee gi xam na si gune yoo xam dañ ko dee toppandoor high school def seen morom yi soo ko yëgee soo ko yëgul suñ xamee liggéey ëllëg danañ ko def ba ñàkk seen liggéey dana leen depress ba pare ak just express emotions express express anger nuñ koy waxee xam nga anglais xam nga baaxul comme ça nga wane ni nga fiil yooyu yëpp gunee fañ koy coppi te loolu di jikko bitim réew fay yàq nit bitim réew xadunaam <laughs> barki salaatu faatee gunee laa yërëm moo tax may wax nit bitim réew loo mer mer ngay dal kaam talk about the issue in a normal human being way waaye comme ni ñuy def nii suñ foogee ne suñ gunee duñ ko def parce que dañ nekk gune danañ ko def ndax vidéo yi looy def nit ñaa ngi koy screenshot kooku la Ami Diop moo on ah ana suma screenshot bi sax good ma yow seetaan Ami Diop léegi su ko delete after fekk ma am vidéo bi wallaay <laughs> Ami Diop ki ki ki ki ki Ami soo paree yow sooy delete ke ko xam na screenshot ba bu yàgg denc man sax suma screenshot yi du jeex yi ma delete mu ci nit ñi xam naa ko mhm. junni xat ci kanam nag su fi suma doom doon président wala lawyer wala ministre wala important Facebook live yi li fi ne yëpp record jóg di pëyi pëyi ci àddina si ak Ami Jóob a ngi nga nii la mel nga daan <laughs> xoolal ma ko fekk Ami Jóob tuub na for exemple ba nekk guut maire bu sangoo kaalaam bokk naan subhanallah ak wér ak kurusam anas ma kurus ga sax tay ñaari kurus laa oda toog ñu ne ko ah ngaa tuub ba baax léegi ngaa goree mandoyaan ba xam yàlla Ami Jóob wuu ngaa xam yàlla nga ne Ami Jóob ngaa tuub <laughs> siya nga toog di rus gune yi di ko xool naan haay yaa booy kii yow la yow sa vidéo yi ba tey mu si àddina si waaye nit ñi lee bon lu tax ñuy seddoo sa vidéo yi la sa sët naan la haay grandma this is you ah these people are so heartless why they doing this they shouldn't see this nga ne leen ah I know never do this don't copy this that this is bad I don't know what I was thinking <tsk> lii is not good bu leen ko mu sa copy now here is the problem never mind just tere nga wax sa doom yi sa jarbaar yi pour buñ la copy léegi instead of yow xam nga lu tax ma ma gën a bàyyi xam nga lu tax ma ne leen bàyyi naa di dimbale nit si xeex nekkul just nit ñi ñuy dimbale si xeex defuñu ñuy nit te faale wuñ ko waaye also sa doom yi nga xam ne yow bëggoo ñu def loolu soo gisoon tey ëllëg ñu ma commencé nekk teenager jotee nit dem Facebook live wala dem Instagram live defal seen moroom yi live nga nga xaaya leen grounded nangu fuun bi denc ko mer hmm? instead of nga di wax ne bu leen bu bul copy li may def hmm? yow kay defal lu baax loo xam ne ngay ne ñu copy ko yow soo mënee def lu bon ba ne leen bul copie li may def leneen lu bon lu guney def si àddina boo leen ko xaayee danañ ko def doo seen mata facebook live góor tuxtaay sàngara too much partying not studying all type rancang buñ commencé xëllëg nga di leen ko xaayee duñ duñ la faale xam nga lu tax yow yaa leen gën a rancang yow doing it different way that's why nga fa ne gune bitin dañ dof rancang dafa am different way rancang naan sangara rancang clope rancang góor rancang dëdëdë rancang facebook rancang different rancang so why you think that you're gonna do your facebook rancang insane madness to entertain people right? Eh? and that the children have to be good te nit ñi de so evil nit ñi de seddoo seddoo vidéo yi parce que nit ñi they get entertained by our madness ñun ñoo de dem di def vidéo yu bon vidéo yu dof insane vidéo xulli bët di saagaaka rëj di yuuxu sànni suñ doom yi ñuy jooy si background bi ñuy ñuy yuuxu gune yi di ko gis gune yi di jàng all this madness nit ñi di ree di siya vidéo ba xam loo tax siya yoo xam ne boo waxoon lu baax ñaari siya sax doo ko xam ñu ñuy entertain ñu ñuy allow nit ñoon di ñuy allow nit ñoon di use you know ñuy allow di entertain nit ñoom ci suñ madness bi te nit ñi koy siya suñ paree di ree kenn ku ko seeku ne lay kaseet ba ko fayoon two thousand pounds sax du ko def su paree nag Ami Jóob rek si sañ wa Ami Jóob rek si saaga Ami Jóob rek si ràncaan Ami Jóob rek si bandi Ami Jóob rek si lii Ami Jóob rek si laa suñ xamee ku la bëgg a takk sax ñu ne ko yaay takk kooku suñ xamee ku bëgg a duggoo yow sax ñu ne la ñu ne la yaay dugalantee kooku te ñëw suñ seen bopp duñ nekk sa xarit duñ bugg a nekk sa best friend duñ la bugg a jege ndig ñemewuñ la foog nañ xam nañ ne nga am problème nga nit help mhm. waaye duñ la ko wax de dañuy pretend mel ni ñoo la bugg nag ah na nga ne dama doon seere di la koole di seesi loo nekka nee naa nga sa affaire daf ma neex sa vidéo yi ñaa nga nga xam nga sa affaire. ñeen ñi sax mun nañ laa ne oh, waaye bàyyi fa sama vidéo yi bu ko di def nag xam nga nangam fekk ñu ko siya oore de lu dàq loolu fa xam tey tey tey su ma jóg nii su ma waxee ba pare nii su ma jógee di leen toggaañ jël suma iPad bi teg ko jàkkaarloog ami jóob bu dof buy saaga wan awax may togg raxas bool di wéy di ree di xakataay loolu du ko dàq faam nañ waxante dëgg ñun doomu aadama njaay day évul suñ xol bi lu évul rek la bugg moo tax film sax bu bu baax kenn ko seetaan film bu bon rek bu xam évul nes moom rek la nit ñi seetaan movie industry boo gisee film buñ def def ci lu bon film buñ deful lu bon kenn du ko seetaan doomu aadama njaay nii lañu yàlla bindee this is the reality bugg ñoo dund lu bon li nag this is the problème lu bon li bugguñ koo dund bugguñ koo def sax boobu waaye ko bugg a seetaan parce que doomu adama njaay suñ mayin bi nga nit dafa baax trop nga def lot of reading suñ mayin bi xam lu mu dee bugg daf seetaan lu bon loo xam ne ñun ñemewuñ koo def wala lu bon loo xam ne bugg nañ koo def suñ sañoon def ko lu bon loo xam ne bon na ba duñ ko mës a bugg a def ak lu bon loo xam ne suñ sañoon def ko waaye ñemewuñ koo def ñaari yu bon yi lañ dee bugg a seetaan waaye nag loo xam ne lay nekk bëgguñ mu dal yow def na si yow nga continuer foog ne ndax yow ngaa sañ wala nga xam fayda te ñun ñu dee wax naan su ma su ma ndey baax naag su ma baay baax naa famille bii laa jógee famille baa laa jógee gis nga àdduna xam nga tax man duma ma dee booda yëfi loolu jóg sa say wax naa leen ko ina jóg vidéo couple of time man suma yaay suma maam ko jur suma yaay dafa bokk ak maam Jaara Buso 100 pour cent waaye what what da got to lu ma loolu jëli man suma yaay su bokkee maam jaara bu soo te su fekkee ne man nit boo mbokkalaat laa war dagga tudd ki doo mun a nekk di wax naan man famille bu baax laa jógee man nang nangam nangam te yow sa bopp nekkoo di bu di ko wone bi nga famille bu baax boo jógee ci famille Queen bi Prince Harry ak Meghan Markle sax ah, te yow sa bopp nekkoo nit ku baax di defee ku baax di wane lu baax li ah, yaa ngi ñëw Facebook di mel ni Ami Jóob muy robi di saaga di ko hmm? is zero yaa almudi buy fanaan si mbedd bi te kooku noonu mu ngi xam yar xam teggeen moo la ëpp daraja moo la ëpp fulla ak fayda bopp baa ngi métti lay kay seet wéraguma bu baax de bu gis suma kiit mi ko bi ak suma yaram bi lay forcé pour bu mu continuer di feebar rek tane naa trop nag bot lii dafa raglu lii dafa saat raglu te yéen ñiy seetaan ak yéen ñiy seddoo yéen nekk 95 pour cent problème bi like I said ñun dañ am problème ñun dañ need help ñun dañ traumatise ñun dañ am stress moo tax ñuy ñëw di def vidéo di saaga di def vidéo one hour di yuuxu ngay gis suñ doom yi sax yenn yi ci gannaaw ñun jigéen ñi di yuuxu ñu sànni doom ji di yuuxu doom ji di ñu xool ñu mel ni gaynde doom ji di ñu seetaan ñu mel ni gaynde doom ji di ñu seetaan ñu mel ni gaynde di jàngal doom ji loolu su doom ji magee di ko def ci school yi ñu ñu dàq ko muy xam record criminal record high school bitim réew soo fa xeexee wala nga xuloo fa xeexaa fa xuloo fa ñu jot ñu def bindal la ko sa record bi soo magee liggéey sa baax sax doo ko man a xam gune ya commencé di xam yu ñu warta xam parce que gune yaa ngi stress ok this is the other problem also su fekkee ne yaa ngi nekk di yuuxu because of you are helping somebody or just you yuuxu Facebook or whatever ah danga dee miin loolu dangay gën a yuuxu si gune yi nga man taay yi ma bàyyi di def façon vidéo yooyu noonu si laa gën a change su ak suma doom yi waaye man xam nga lu ma dimbale over the years man dama xam ñaari caractère yi tout caractère yi la xam da nice and kind sweet ami character and the find a break character that my child married pain put in me wax naa leen ko téeméer yoon si dara ma yus doomu aadama njaay ñu ñu ñëpp xam tout caractère it's just ñeen ñi seen bët dafa ëpp ak ni ñu koy defee dafa wuute ñii seen bot nii lañ koy defee ñeneen ñeneen so dama bëgg a focus more in that I'm a proper I'm a character the good side instead of this job uh, barrage character that I'm gonna fix my community I'm gonna fix people I'm gonna find a barrage who do you think you are nga character the reality is loolu du fix dara te du mës a fix dara te loolu du la dimbale yow dangay miin loolu su ko defee nga di ko def sa doom yi nga di ko yuuxu sa doom yi doo mun a toog one hour di yuuxu sa xol bi di tàng ngay defante di saaga ba pare after that nga nekk normal person the rest of the day you're happy you're cooking you're joking you're just nice no after that ngay continuer ak xol bu baax bi the rest of su gune gi waxee nga yuuxu ko yuuxu nit ñi just negative and going crazy ba pare nit ki soo focusé on negative man lu ma gën a dimbale tam suma whole life mooy du ma dee nangoo focus on negative saa wu ma tinkee negative react negatively dama dee daw si sens yi wuti bridge rek ñëw si suma positive side bi ah loolu rek moo may mën a dimbale di su ma defutoon loolu deenaa bu yàgg with this job of recharge ma rek that you know da am benn tur so like I said they need help parce african lañ west african lañ bëri wax ak ah, west african ñooy number one si bari wax ba pare te dañ traumatise need help ba pare bitim réew dafa wéet Afrique nit ñi di la kool nga war leen a dimbale te xam moo loo leen dimbale boo ko xamee sax danga dee stress ndimbal gu du jeex te kenn du la dimbale yow ngay dimbale rek loolu daf dee stress nit also ñi ngay dimbale sax duñ ko apprécier most of the time Afrique ngay yónnee xaay duñ la koo sax apprécier ko faale wuñ ko loolu yëpp daf la dee stress sooy dimbale nit te apprécier ko koy dimbale talk baax da dimbale nit ki soo koy dimbale danga koy dimbale just because danga ko bugg a dafa métti nag parce que nit ki soo koy dimbale te apprécier apprécier ko daf day métti da dimbale teeng Bril Me Too yéen ñi nga xam ne yéen yéen ngeen ne yéen a indi baro First Lady bi dafa war a nekk good First Lady si yéen parce que yéen a indi baro gis nga First Lady bi du mën a nekk good First Lady si yéen just bi ko yéen a indi baro man faraluma kenn suma bàmmeel ak suma bopp laa faral First Lady bi du mën a dimbale kenn for exemple for exemple nga man comme comme comme exemple bu ma fa ma xaalis du ma mën a wax ne Fonéré bi joxul ma xaalis dafa ñàkk ngor maa ngi koy defal vidéo wan awa nangam nangam di wax bu ko suma rakk waxee lii naa ko wax parce que vidéo bu ma ko doon def Fonéré bi yónniwut ma santut ko santut ma xamut ma yéen bu ngeen doon xeexal jàmme Fonéré bi santut leen Baro santut leen xamut leen xamutoon sax ne moom moo nekk président nañ waxante dëgg léegi tey mu ñoo nekk président ngeen dina leen jël di leen dardaree bi ko sof moom moom yéen a ko xeexal it doesn't work like that nit ki sooy def dara lu baax def ko rek ngir sa bàmmeel ak ngir nga ko bëgg a def ak ngir honesty walla nga ba ko yéen ñi doon xeex yow da ngeen doon xeex pour Gambia pour ñu am good president good doctor good lawyers good school good job you know opportunity for the youth good everything ah foog naa loolu taxoon ngeen di xeex de ak bu ñu xam président boo xam ne su ko neexee mu ne soose bu fi julli soose bu ma wax nangam ma baare la seven mita faana faana bu fi julli suba wala xeet bu julli suba ñu robi la suba du julli wala ku julliwul suba danga dem sa imaam bala sant julli xanaa ngeen a reb ma fa ne loolu lañ doon génne ndax force la di buy ñëw di leen sang di leen boot ak président bu leen di raay di leen diw ngalam ngeen doon ngeen doon xeexal lan ngeen ci doon xeexal number bàyyi leen di wax ne ngeen doon xeex ba pare kii ñëw faalewu leen saa bu ngeen ko waxee sama maas yi nga xam ne nekkutoon nekkul woon ci xeex bi suñ leen déggee dañ leen di ree di is the reality fa ñuy xam ne yéen fa ñuy foog ne boog nekku leen woon di xeex ngir dimbale Gambia ngeen doon xeex ngir interest su fekkee ne sax ngeen doon xeex ngir Gambia du feeñati first lady bi ak président bi ci boppam comme ci sànni joxul la xaale ku ne number one the reality is foofle bi ak président bi man ànduma ak ñoom ci liy sàggane lopitaan yi de waaye foog naa xaalis bi ñu foog ne moom lañ xamit foog naa ne xamuñ ko xam naa ne na président bi dem na samp kër gu rafet and stuff like this and seen solo yeeg yooyu nit ñi dañ def ne dañ xaalis ak whatever but joke aside suñ xamee it foog naa ñun nuñ foog ne noonu lañ xamee xamee wuñ ko de parce que réew mi si ñàkk lañ ko jël te yéen ñu si bëri yéen a ngi email international community bee lu ne ngeen di ko def di block seen chance pour buñ xam ndimbal te ñoom bañ toogee ba tey réew maa ci ci démocrate yi du jeex xaw ma démocrate xaw ma protest yi dul jeex from one protest to another from one protest to another businessman yi war a ñëw develop Gambie sax ñu ngi ragal duñ mën a def develop Gambie di jaral na leen ñu dem Sénégal wala Nigeria wala wala Ghana ku bëgg a ñëw hubbitee xam nga léegi black américaine yeeg black british yëpp a ngi bëgg a def Africa def business jaral na leen ñu dem Ghana wala yeneen dëkk parce que Gambie mu ne bu ne protest protest xeex ak lakk police station ak lakk lii ak ray nit yi rek yu kenn xamul te lu xew ngeen def ko si Facebook bi def nataal ya nit ñi jam ñi ngeen def nataal ya accident sax ngeen def nataal ya kuñ roof ngeen def nataal ya def vidéo di xañ xoolal nguur gi rek xool leen lii rek loolu yëpp si li bloc koom-koomi réew mi la bokk ndes jos bi réew léegi lay kay seet sama bopp bi métti de waaye lii dafa am fayda man trop su yéen ñëpp a ngi jóg di bloquer ko mi réew mi ba pare ngeen ni réew mi dafa war a nekk Paris in one day loolu tam du mën a dox dëgg la président bi waroon naa focus si healthcare bi tali yële muy ràngi tali ay ba mu ko waroon na ko talee godorong yi lopitaan yi defar leen def ci ay paracétamol ak ay docteur yi kiw ba nag yi kenn xamul def daal ba ma machine yooyu soxla yaay opéré nii ñaak ñëpp ñu xam ko xam naa ne loolu dañ ko a def te ko waaye ñu nit fa ñuy wuti ko léegi ñi nga yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak Fatou Camara su ngeen jék jékkee-jékki rek di dal di di dal di dal di di xas foos le di bële you know beneen Fatou bi Fatou foos le di ngir Fatou Camara ah man de def naa si vidéo ne fandri na ban nu mu doon def Fatou Camara ngir Fatou foos le di waaye néew ma ci di xas Fatou foos le di de jóog sa sayit nit ki boo àndut ak moom it nan ko bat bu ko jékki-jékki rek di ko xas saka bu la deful dara waxul la deful la vidéo di la xas deful la dara nga ñëw rek def ko vidéo di ko xas xàq dee dafa xam moom su fekkee dafa nekk fausse di par exemple ak moo jëkkatam ñu ngi jël xaalis nguur par exemple di ko lekk sax xam nga ñu ñu gàddul xàq waaye ñu nit buñ toogee rek di leen xas yenn xas yëpp yi ñu nit ñu ngi gàddu xàq xàq ji fay raam rek xàq ji is like it's gonna just keep going in circle what do you think léegi dugut mbiri xàq mi sax ne xam naa ne xàq bi faale wuñ ko african lañ fañ miin xàq di ko xendoo di ko fanaanee di ko faale wuñ ko waaye stop lying yi doon noonu te kii xaw a kum daal doo ko faale focus waaye su fekkee ne xàq mi faale wuñ ko sa suñ doom yi ñuy yar bitim réew lay kay seet te doom yi ñu bugg gaa yi mag nekk nit ñu barke nit ñu baax you know nit ñu xam jom nit ñu focus nit ñu am liggéey yu baax di liggéey si parlement si tubaab yeeg docteur yeeg whatever macha allah whatever good fu jaar ñu bañ leen a yar ci Facebook live yu bon yi ñuy def gune yi fañ koy gis daf leen di affect xam nga tamit wax xam nga gis ngeen man dama fi daan war sama bopp bi you know at yi suma doom ji jigéen ji xam nga léegi daf dee muuru moom tamit léegi mu jékkee-jékki rek last week daal di ma ne ko yow de ngaa war a firi sa mees yi parce que léegi dangay muur firi sa mees yi nga xam ne yaa ngi ko léttu woon balaa ngay muuru fekk fa foofu muuru woon lu ñetti fan xaw ma mu ne waaw danaa ko firi kay ma ko ne doo ñëw ma dimbale la ñu firi ko rek mu ne maa bugg a wat sama bopp bi ndel mu watu su ma doon ji fi nga nii fa watu ndel ndig man mi gis ma dee watu ndel xat yi yëpp I don't know you, but you are very real. I love what you do. Thank you for this video. Oh, you're welcome. Life is nothing. I'm not. perfect. I did my mistake, but I'm just forcing myself to learn to change. You know, it's very easy to change, but it's very hard. Because if you have ego, of I'm right. Why should I change? Uh, people should find a better. Who are you? Nah then you never change and it's your business you're the one that gonna live the consequences at the end of it all you are gonna reap what you are sowing now hundred percent man suma doom jigéen ji dafa watu xam nga bu ñëw ne ma yaa dama bëgg watu fekk mu ngi wax xaritam bi si téléphone ko ne man de dama bëgg bopp bi parce que suma létt yi dama ko bëgg a firi waaye léegi dama gannaaw damay muuru may watul de rek benn kooku ne ko wat mu ne ko waa xaaral ma dem laajte suma yaa dina nangu mu ñëw laaj ma ma ne ko waa no problème mu ne ma réel yi ma ne ko waa ah gannaaw ngay muuru kay watul ndel yaay yaa koy yëg su ma yaa néew si mu dem xaritam bi ne ko wat sa yaay wax na yees mu ne ko waa nga bi asienne la <laughs> xam nga asienne ñoom wat kawar lu réel si ñoom mu ne mooy ko sa yaay nangu na mu ne ko waaw mu ne ko oh my god rek suma ji jël lifin bi kon noo ko daan defee exactly jël clipa bi block ko rek commencé di ndelu ma toog suma néeg ma ne laa xam nga man lu lu nekk ma dee jàngal bu leen ma gis nii ak suma bëri wax gi lu ñàkk fayda mën na maa jàngal àdduna rewee ci suma àdduna noonu laa sante yàlla nag ma ne ah suma doom ji suma watu ndel yi mu daan gis ma di ko def at yii yëpp moo tax suma doom ji jékkee-jékki rek téppati ku dafay watu ndel suma doom ji tattin ya óol tattin ya óol fii kan mooy tëb rek ne la may watu ndel suma doom ji tëb watu dal di jël lii ba watu ndel ba ndel bu rafet la <laughs> mu ngi si commencé sax léegi wat ko ni ndeyam toog kon léegi est-ce que suma doom ji sax man garanti naa nag suma bopp est-ce que man garanti naa ndax suma doom jii du mag ëllëg mere nit hmm? ñëw def Facebook comme Facebook yi ma doon def in the maa ngi ñaan yàlla bu mu ko def waaye su ko yàlla dimbaliwul dana ko def parce que loolu ci li ma daan def la bokk xam nga gis na moom ma daan watundel tax mu watundel may watundel Facebook live oo just watundel si néeg bi at yëpp maa ngi koy def suma doom ji watu na ndeel for no reason léegi suma doom ji est-ce que ëllëg su ma fekkee jote naag nit su demee ba mag nekk xem ni man wala bu xemut ni man sax nekk 20 years old wala 18 19 whatever est-ce que du joteeg nit click Facebook live ba ñëw def ni may def ni yàqal boppam xaduna parce que moom niti bitim réew la lii di ko jik warut a xam this type of mentality warut a xam dafa ne war a nekk professional good human being koo xam ne soo meree it nga koy deal with it in a respectful manner in a normal human being manner waaye est loolu laa koy jàngal maa ngi koy jàngal soo meree nga ñëw click Facebook xulli bët saaga ndey fa one hour yuuxu fa one hour ba sa bopp bi métti so loolu yëpp lu ma gën a taxaw wecceeku la bokk loolu dafa fekkoon maa ngi wecceeku already loolu bu yàggoon ni la wato one week sax motu ko su ko watee si la waaye daf ma gën a jàngal na bu ma ko gisee mu wata noonu ma ma tiit ba jóg julli ñaar rakka yëgu ko ba tey xam naa dana ko dégg léegi lu may waxee ni su déggee vidéo bi parce que daf dee seetaan sama vidéo yi waaye maa tiitoon ma ne yàlla ba suma doom ji toppandoor suma ndox gi ma neewoon Facebook xat yi yëpp di def yeneen vidéo yi di dimbali nit ñi ka yuuxu suñ community bi rek kenn waxul ne bul nekk motivational speaker wala just talking for your community whatever xadduna si léegi ñëppay wax tubaab bi sax si bi sax dafa demee waaye at least soo xamee énergie pour wax nit ku ne ni ko yàlla may dafa wuute soo xamee énergie pour wax yàlla may na la loolu use ko si good use nga wax loo xam ne dina jëriñ nit ñi mbala nga ba bul wax dara honestly waaye soo ñëwee di wax loo xam ne fay indi wax bu sew di gaaru xaale di kokkali xante wala ngay def yeneen behavior yi ràncang behavior yi di wax waxi ràncang yi yaa ngi influence xale yi influence bu bon su dee xam xamoo doom bul xam doom su dee xam nga doom suba soo guddi goo tëddee na nga tiit ñu ne ma tiitee keroog tey ñaan yàlla bu sa doom yi jël sa ndox sa madness bi ndi xaduna dafa bëri stress naqadi soo magee bitim réew sax xaduna dafa bëri stress gune yi mën nañu mag xëllëg nekk di face life challenge challenges yàlla traité ko ba stress na ñun stress moo ñu tax def suñu yëfi dof su ko defee nag gune yi ñëw sippi ko ci facebook live yee wala instagram live ak wala internet bi rek di go crazy attaque nit ñi te gune yi man nañ cee ñàkk mucc ndig bitim réew léegi ñu ngi jël li seriously xat mu ne ñu koy gën a jël seriously online bullying online xaste online nangam te tubaab bi léegi dañ dee hut interprète soo defee xolof vidéo wala nga def soose nit ki su ko wanee police yi mun nañu hut interprète man liggéey naa fi interpreting before mun nañu wut interpréter bu leen di wax li nga wax ñu jàpp la tëj la wala ñu saman la walla ñu jëf defal la criminal record gune googa nu muy xamee liggéey bu baax bitim réew nu muy tekkee like I said ñun su fekkee ne dañ ànd ak Fatoumata Ba tamit ba tey war nañoo xalaat vidéo yi ñuy def di xas beneen Fatou Fatou network bi ndax loolu dana ñu dimbale wala dana dimbale Fatoumata Ba ok soo jógee nga xas faatu ba leen ne ak ak xaritam su ko defee moom mu jóg yeneen xaritam yi jóg xas sa faatu bi yow nga jóg xas ko si yow sa sa yeneen xarit yi jóg xas ko kële xaritam yi jóg xas ko ñu mel ni ay ñaari gune yu dajee si fiil di play football di xeex di xuloo xam nga lu tax ma gis problème bi nii parce que bokkuma si this time parce que léegi ceeñ naa nu konoon tey maa si dëkk bi ba saf si nag kan moom may wax lii nu konoon kenn ñi la ko war a wax mooy ñuy siye vidéo bi ñoo la war a wax ni may wax nii xee la duñ la xee duñ la faale dañuy siye vidéo bi di reer xataay toog di seetaan télé di la seetaan suñ paree ni dof boobu rek nekkew pour saaga Facebook ay eh, ñun gambien yi ay eh, ñun gambien yi xamul nañu jot ay eh, ñun gambien yi xamul nañu jot suñ paree nag siye ko li ñuy jot mooy yéen ñi seddoo vidéo yi bon yi ak ñun ñu koy def ñun ñëpp a feebar loolu moo ñu jot naaw xam nga lu ñuy jot good léegi damay wax tuuti luy garab gi bala maa dem sama bopp baa ngi métti de like I said waaye lii dafa serious garab gi mooy yéen ñi nga xam ne yéen a raw ñun ñuy def vidéo yi ba tax du ngeen séddale vidéo jàmm vidéo bu bon rek ngeen di séddale ba tax ñun ñuy def vidéo yi bon yi pour ngeen séddale ko ku fekkoon ne ko def vidéo bu bon kenn du ko seddale kenn du ko faale kenn du ko defati ku ki la gis ni kuy def vidéo bon sa nga génn man noonu laa de rek bu leen ma gis ñi de def naa ci sama bit lay ka seet vidéo yu ma def xoo nit wax yu ma warut a wax dama de tëdd guddi du ma nelaw yeneen wax yu ma gis nit ñi di wax Facebook du ma ko xalaata wax suma ma dofoon sax benn yoon laa fi musa saaga te borom mu ma saaga te borom ni koo xam ne la nit ñi dañ ko respect Facebook muy wax nit ñi mbir yàllaa ko def yëpp moo taxoon mu gën maa naqari waaye ma buggoon koo tiij la seen tamit waaye regret naa ko te wax naa leen ni regret naa ko waaye yeneen vidéo yi ma def wooturu nit du ma si masa saagante du ma si masa go overrate comme yéen ni ngeen di def waaye even vidéo yooyu dama ko dee def dama dee toog seetaanaat ko ma ne ma rus ma xalaat suma ay sët buñ koy seetaan in the future nit ku ma bugg bu koy seetaan wala suma xarit wala suma mag wala suma rakk wala suma yaay how will I feel ma ne noonu parce que the reality is nit ki lu mu la mënti tooñee te lii xam naa ko di bu ma nekkee gune gu ndaw nit ki lu mu la mën ci tooñee lu mu bon bon hmm? yow soo ñëwee nga tooñaat ko ba tooñ ko lu raw lim la tooñ rek yow yaa ko gën a bon that's the reality parce que moom dafa seytaane moo ko man wala dafa stupide wala whatever ba tax mu def lu mu def léegi yow soo ñëwee copy ko ba raw ko yow kan jarul ngay wax sax ne kii dafa bon jarul ngay ñëw naan diw sàngam yow ngaa bon diw sàngam lu tax nga mel nii ah du bon rek la yaa ko gën a bon moo tax nga di ko wax li ngay wax right now so why yu bother da they bon that's hypocritical what's the English word it's madness it doesn't make sense waaye doo ko dee gisee nii soo si neexee you see lii yëpp need lot of thinking you know so ñun dañ war a recover from niñ mel it's very sad dañ war a recover parce que ñun Gambie gu tuuti gu tuuti googu te nu ñuy def nii yëpp dafay tax duñ mës a xam président bu baax duñ mës a xam poste bu baax duñ mës a xam lok dooy lok dooy looya oo docteur bu baax xam nga lu tax ku ñëw rek danañ ko xasa xasa xasa ba ba miin xaste yi léegi suy def lu ban sax ba ko xasee mu ne ah ñii xanaa ñii kuy fecc boo leen di feccee si taw sax ñu ne la bu ma tooyaa ñu ne la yaa ngi may pëndal soo bàyyi leen ñu wax wax rek lañ mu ne keneen kuy ñëw tam fay pare loolu ne ah xaaral ma ñëw si Gambie ni maa nekk si seen force la di xaaral ma pare de parce gis naa keneen ki niñ ko doon def man maay nekk so man maay seen président léegi xaaral ma pare de parce que ñii niñ def président bële lañ may def wax kat lañ xaste kat lañ so da ngay gis ne président boobu su defee lu bon soo ko wax mu ne xaay xanaa du ñii rek su ma nit ñi su ma nit ñi nii lañ mel bàyyi ma bàyyi ma seetaan leen xool ko rek soo xamee jëkkër sax war a jabar wala doom hmm? koo xam ne fu mu toll rek mu ngi lay xas loo def rek mu di ko xas xam nga man lii moo taxoon ma doon dimbale Barrow from the beginning xas yi neen ko doon attaque from the beginning xam nga waxoon naa leen ko ne leen su ngeen teelee commencé di xas président bi bés bu xas jotee wala bu wax jotee bu ngeen waxee du leen faale gëmu leen nakam gisoo fi mu ne bu mu toogee ba ñetti at yi passé defarul lopitaan yi yéen a ngi wax leen parce que depuis dee woon yéen a ngi koy xas si lopitaan yi sré tawee lopitaan yi lopitaan yi nangam ak ba léegi mu jàppee leen dof miin na xas tey amul bu ngeen koy xas woon saf ko xanaa amul sax lu ngeen koy wax yéen lan ngeen di war a xas président bi léegi xas ngeen ko xaste yi ngeen xam si àdduna yépp léegi xanaa ngeen ooda xaste yu xees ngeen ooda ko China léegi nit ki soo commencé di ko xas au nécessaire lu ne nga xas ah su ko miinee soo koy xas la pare du la faale xanaa du yow xaskat bi rek la so what's the difference the yesterday xas and the today xas is all xas that's what you do koo xam ne danga need help xam nga sa bopp like I said ñun 80% bi yëpp a need help dañ traumatise parce que ñun ñëpp a yaroo si këti wujje ka ci defante ka gaaru xaale ñu ñu si bëri ku ci yarawul yaa ngi gis sa néebo yi di ko def ngay dem school di gis nit ñi di ko def ticca ba sax fa lay jàngal gaaru xaale ak defante ak xuloo soo defee benn mistake ticca ba def la ten punishment loolu yëpp yaa ngi jàngal gone gi defante te yëgoo ko nga ñëw si kër gi nga def benn mistake sa yaay def la ten policemen sa mag sa sa sa rakk yi noonu sa you know yàlla bul xam kër yi wujje nag sa yaayee wujje sa yaayee wujjam di xuloo di tàccu ngay seetaan di xex-xex yi ree loolu yëpp sa àdduna yàqu na te yëgoo ko nga mag si loolu ñëw bitim réew ne cëpp toog jàkkaarloog sedd bi jàkkaarloog tabax yi jàkkaarloog internet bi nga mel ni ami joom nag joom ni xamoo ñu xulóot xamoo roon mango gooy raxas bool di xuloo xamoo dara xamoo iskul booy xeexal gune ya xamoo dara ñu ne la fi mu ne day bàyyi foo nga nekk nit ndax dëkk bii duñuy def nii nga ne leen noo su ma yoon néew si dëkk bi seen nit aw rab laa taf ma rab nag ma koy practice yàqal suma doom yi seen àdduna ba nga xam ne suñ magee duñ mën a ne yoon néew si waaye du ma wecceeku lool moo ñu dal te xam ngeen ko yéen ñi dee séddoo suñ vidéo yi ba tey ma leen di laajaat yéen nu ngeen di nelawee su ngeen di seddoo façon yi vidéo yooyu nit di tàncis nit te wóor na leen ne bu doon seen rakk la wala mu doon seen mag la wala mu doon seen yaay la wala mu doon yéen seen bopp du ngeen ko mës a séddale man duma mës a séddale vidéo saaga bu nit di tànc nit even man xam na vidéo yi ma def in the past te ko mës a séddale bu doon keneen moo ko def man duma ko séddale wax naa leen ko man depuis dee waan dama leen dee wax xam ngeen ma yéen ñi ma yàgg seetaan man am easy am open book don't worry man man rek man maa lay wax everything don't worry look nañ leen xam ne xaduna bi koro baay or not xaduna bi is nothing xaduna si yëpp saka yéen ñi yéen ñi nga xam ne du ngeen ma a wecceeku ndax ngeen a nit pour mental health bi yéen a mel ni ami jóob da ngeen traumatise ba sibbutu di karkari te prestamol xamul nanguwu leen sax ne di admit ne da ngeen traumatise waxuma laak di ko faj ah xam nga ngeen di continuer di wax ami jóob or not fine waaye lenn laa bëgg ngeen xam at least wax leen boog si si si xolof at least wax leen si ndànk dal kon ni may waxee ni sax bu leen ko def gën leen maa dal ba ku leen di seetaan bu mu foog ne ngeen a xame rab di say di abuse ñi si internet bi que tubaab yi mën nañ leen a seetaan ñoo xam ne seen néebo lañ wala seen xarit lañ nit ñi mën nañ leen sot seen doom yi mag suñ déggul xolof sax danañ xam ne suma yaay mii mu ngee angry mu ngee wane anga si internet sol social media bi tuubaare yàqal nga leen seen àdduna suñ magee mën nañoo nekk ay Twitter ay Instagram ay fune ifin ñu nekkee xale sax mun nañoo nekk di abuse nit ñi si internet bi te yow yëgoo ko fekk yaa leen ko jàngal ñu mag si loolu miin bulli ak abuse dem place liggéeykaay def ko fa ñu dàq leen high school ñu di ko fa def di am problème ñu mag seen àdduna yàqu mën nañoo toskare nekk jonki commencé di use drogue ak alcool parce que fañ liggéey ñu dàq leen duñ mën a am life parce que abuse ak kat lañ ba baabal abuse xam nuñ ko tuddee sañ wax xaste saaga te yaa leen ko jàngal ñun ñoo leen ko jàngal that's the reality this is the reality the sad truth is embarrassing but this is the reality so koo xam ne doo wecceeku jarut ngay xam doom koo xam ne nga xam doom ba pare te doo wecceeku xaw ma ban façon nit nga ndax xam nga deret sa yaram wi ndax doom yi ngay yar yelloo wuñ loolu ndax yow sa mind bi nga xam ne everyday yaa ngi xuloo di saaga di defante sa mind bi dafay miin négatif sa mind bi dafay miin defante ak xaste gune yi war a dund loolu nga jàngal gune yi defante bi xaste bi plus doomi aadama yi ne si àdduna bi nga jàngal leen defante xaste the reality is àdduna bi Facebook live bu ñuy def ni dañ siy jàngal nit ñi ifin doo suñ foogoo ne nekkoon di leen jàngal di doo suñ mata ñu ngi leen di jàngal lu baax oo lu bon vidéo boo def bu ne jàngal na nit believe me bu ma ko xamee laa gën a wecceeku dama foogoon sama vidéo yi pour jox nit ñi ree you know yenn yenn la vidéo yi ma def lu si bëri and stuff and just telling my culture to find a break for what they're doing is waaye bu ma demee ba gis the amount of nit ñi nga xam ne ñoo may call di wax lu ñuy jàngee sama vidéo yi si laa ne ah kon ndeke vidéo yu bon yi may def tam maa ngi si jàngal nit ñi waaye dañ ma dul koor rek wax ma ne jàng naa mbon gi ci yow kenn du la koo ne la Ami Diop jàng naa nu ñuy wutee brique because sa vidéo yi ngay wutee brique xam nga loolu duñ la ko wax ndekkee fañ koy jàngit comme nit ñuy jàngee yu baax yi xam na nit ñuy def vidéo yu baax Facebook yoo xam ne ñoo taxoon ma wecceeku saka jigéen boobu tudd eh, nu mu tudd Kumba Kumba dafee foog naa noonu tudd te te nu mu tudd Tarawal Women xaw ma Tarawal Women xaw ma Tarawal Women <laughs> nelaw sama ween si jigéen ñi ma gën a wecc ci Facebook la bokk am not joking te jigéen ñi nga xam ne ñoo ma gën a tax ma def vidéo yu bon yi ma def Facebook it yéen la yéen ñi ko continuer di ko def ba tey te yéen du ngeen ma ngeen sonn naa waaw man maa ngi en si ñi ne ci vidéo yu bon yi di ko def xaddi yéen depuis bala maa ne Facebook ba tey wecceeku leen yéen yéen ma defoon may def may def vidéo yu bon yi yéen a ma wecceewoon te man duma leen ko baal sama musóor gi dafa dëgërul moo tax ma ne si defal rek man duma leen baxal vidéo yu bon yi ma def yëpp te ngeen def ma ko xaalaaxira su fekkee ne ni yàlla baxalut ma ko xóob saa ay xóob ne yàlla ko baxal su ko yàlla baxalut xaalaaxira su yàlla layoog man ba pare ma nit ma layoog yéen ah ngeen fone man rek la ci yàllay ponis vidéo yu bon yi yéen jàngal ngeen ma ko te dangeen ko jàngal ñu bari xam na ñu bari ñu toog tey jàngal ngeen leen ko te ñooñu danañ génn déwén wala ñu génn next year wala ñu génn one day suñ suñ meree si somebody and that somebody could be you or your sister your husband your children no one is safe now you think everyone is safe do you guys don't use the brain that God give you to think use it you will see the light yéen a ko jàngal nit ñi ne ku mer rek ñëwal Facebook nga sañ nga saaga nga def lu la neex yéen a tax man ma doon def lu ma doon defaat yépp ñiy def vidéo yu baax yi it du sin mata ku ku ku du faatu rek du kumba dafe rek moo ma ceeñ xam na ñeneen ñu def vidéo yu baax ñu ma ceeñ it képp kuy def vidéo yu baax yu ne bul xeeb sa vidéo bi su xeboo benn nit seetaan la sax ndax vidéo yu baax yi kenn du koy seetaan kenn kenn kenn du lay seetaan moo tax mu naqadee def li tax vidéo yu bon yi bëri vidéo yu bon yee dee xam tout three hundred view five hundred view vidéo yu baax yi this is boring kii wax rek bari ut bés rek ñëppaa ngi bugg a nekkaan ñëppaa ngi jaay maa xam maa lii lii tax vidéo yu bon yi bëri parce que boo ko defee rek ñëpp riit ñëw di xaqataay di def laay gafal yéen yéen a jàngal ni ñi sañ ak wax lu la neex because it's my internet am it's Europe or whatever yéen ko jàngaloo suma maas yi man yéen a ko jàngal ñeneen ñi koy def yépp te group gi toog nag groupe gi ko jàng te toog te jógaguñ moo raw groupe groupe groupe gi jóg nii ñaan leen de parce que groupe gi toog buñ jógee yow mi ko jàngal nit ñi you not safe sa doom yi dina safe soo xamee jëkkër dina safe su dee danga xam jëkkër in the future dina gën a bi safe sa doom yi sa sista yi sa broda no one no one sa yaay is not safe yéen ñi dee wax ne yéen ñi dee def vidéo di wax ne fii nga ma saaga ndey wala fii nga ma saaga te loolu ma naqaree ba tey mu ma naqaree ba pare nga saaga nit ki xaat nit ki pour nit ki saaga la wala pour ñeneen saaga la ndig nga koy saaga kon yow sa saaga bi nga ne fa la naqari naqariwut la he booy confuse façon ñun ñoo nit help ndeysaan nañu yàlla dimbali barke salaatu faatiha jóg sa say is very man xam naa ne bu ma ni saaga xawoon fii ndey naqari bu ma naqari ba tax ma jóg daggal ko saaga yi ma mas ta def si àdduna su ma dégg saaga yi su ma oon saaga laa créé te di ko rëccu ba xëy dee ne wóor na ma ne vidéo ba nga si nit ñi ni ñuy denc ko ne teg di xaar bés bu ñu koy génnee bu ma xajee màkka wala nangam incha allah ñu ne ma ko pëyee nag ni ma sanganale màkka gàngoog ami jóg waaye duma mës a jotee nit di ko saaga wala for exemple nit kooku noonu ma saaga woon tey su ma jotee woon moom wala mu def dara lu ma neexul wala mu def dara nit si àdduna si loo xam ne neexul ñu def dara Gambia du ñëw rek ne ko yow fii nga ma saaga woon yow nga xam ne nangam daal di commencé di ko saaga xaat wala yaa yoo di nit ñi ñu saaga ma nangam daal di di ko saaga xaat ngir xam naa ne saaga bu ba naqadi woon na ma kon dama koy prevent what's the English word damay do all I can to make sure um, saaga is not going waaye su ma la saaga xaatee pour nga saaga xaat ma wala pour ñi la bugg saaga xaat ma kon saaga boobu naqadiwul ma non nañ waxante dëgg te ñun suñ ndey yi toog si ron mango yi julli tusbaar toog jàpp ak seen satala yi si ron mango yi africa mbala ñu nga dee ñu robi leen ñu tëdd ku leen mënta jàngal kulhuwa fokki kulhuwa ak benn saawoo jullee te ñun ñu koy def sax foog naa bariwut hmm? ngir yàlla kon bu leen ne di di di di di jël Facebook live rek di click di saaga nit ñi nit ñi di leen saaga wala nit ñi seen xarit yi di leen saaga wala ñu seen fans yi di leen saaga di saaga seen ndey yay toog sa ron mango ya bala ñuy saaga seen ndey yenn ca bàmmeel ya ba seen yax ya seey hé koobaay bi àdduna bi yëpp tiit ngir koobaay bi xew nii te nit ñëpp stress te tiit tëju si néeg stress ku ne foog ne ngay dee ak wala nangam wala àdduna si yëpp jaxasoo ak nangam soo dafa yokk dafa stressful waaye bu ngeen continuer saaga yii nit ñu mel ni yéen te seen xel mi melut ni man nu ma mel nii léegi fa ñuy continuer bi ko ñu ngi stress te ragal ngir koobaay bi fa ñuy continuer di leen gën a saaga ngeen mel ni ay dëmm yu jëfóor ci Facebook bile te bët bu set ngeen gis nit ñi di di di di téeméeri nit ñiy dee ci àddina si la ñu di ko def ci news bi time I don't even worry about the job robbery, private issue, people sharing. Man, I'm just worried about the saga and the rage and the, unnecessary argument videos that we are doing. The private issue is also wrong, but man, I'm just, my culture, am i do know what to say. People that live in America should know how traumatized people are. Most people are here are generation course, I always. Definitely, doesn't matter America or Africa or anything. 90% of Africans were all traumatized. This is the truth, especially West Africans. But I think even Kenya and uh, I think most African because we come from a strict home. It's not just African, That's just the reality. I always thank God to have an African background. The African background is good, sometimes it's very traumatizing depend what type of African background you have okay ah suma musóor gi African background bi baax na waaye su fekkee yaa ngi am African background boo xam ne it's about dóore xaste defante saka këri wujj yi wujj is very damaging xam nga man soo gisee I don't really like wujj thing it's not like fear góor kenn mënu koo jeexal when it comes to góor to be honest wujj is nice because góor gi dafay dem si kële nga namm ko two days osam bi su dee yéen dëkk comme sama mag ak bu nii two days sa kële two days mu ñëwaat si yow nga namm ko daf day nekk new thing saa yu nekk yi ne ba pare su ñëwee dang dee dang daf la dee def si that competitive mood not overdoing it waxuma ñu ko dee over def su wujj wu jëndee jaaro nga jënd ko am no saying that waaye comme ça xëy na kaw lal bi you know trying to be chicken now di nga naa xarama jéem a jonge si lal bi because bëgguma sama wujj gën maa jonge something I don't know it's just like it's kind of exciting su fekkee yéen a ko def in a peaceful happy way ok but loolu moo si yombut gaaru xaale defantee bi ko xam nga danga dee fiir fiir moom ñëpp ko xam ku xam wujjita fiiru xamut xanaa nga ñàkk a nopp sa jëkkër waaye dafa am ñoo xam ne dañ mun a téye seen fiiraange gi ba doo ko yëg so wala seen fiiraange gi is not too much comme ñeneen ñi ko alaaw parce que fiiraange devil la si ñun su ñëwee def na si yow nga entertain ko muy gën nag yaa ngi koy naj ko naan ko hutil break that is no space for you here du la dee man waaye wujj gi is very damaging moo yàqu suñ doom yëpp ñun Afrique yu xam wujj dëkk Afrique yu xam wujj yëpp a yàqu te dëkk Afrique yëpp a xam wujj yu si xam wujj bariwul ñu duwut julli sax dañ daan ñaari jabar Kenya ak yeneen dëkk yi duwuñ jullit waaye ak ñëw ñoo ñaari jabar ah ku bañ xam ñaari jabar am jóg mu suppa di mi ak keneen ko selem ki ku la si neex rek so wujj mi daf dee indi fiiraange gi indi defante mi indi gune yi gune yi from young young age they exposed to hate and defante they exposed to this nightmare that I'm saying that we, can expose them to by this job videos that we are doing it's the same as gars yi to defante gaaru xaale wujjee you know hate so xale yi magee si noonu it can be very hard pour xale yi nekk nice bubbly love and kind person who just love everyone equally just totally honest living a life is very hard xanaa xale boobu mu xeex ak boppam wax boppam dëgg seetlu xelam mi nu muy xalaatee ak nu muy jëfee ok life is so easy ñun doomu adama njaay yu bëri time bu ñuy jël di ko focus si àdduna si ah? di li lijjanti yeneen mbir yi suñ ko focusé si suñ xel mi lijjanti ñun suñ xel mi nu muy xalaatee ak nu muy defee ñuy wax suñ bopp dëgg hmm? loo xam ne bëgguñ kenn def ñu ko ñu bañ koo def suñ ko defoon rek àdduna bi yëpp so sort out in one day àdduna bi yëpp ay fix in one day that's the easy waaye soo xamee ego doo ko def soo nekkee ko pra ku rëy danga xam ne su ma ceeñee nit ñi dañuy wax ne I was wrong the whole time wala I was stupid wala da da da wala am week wala am not gonna get this xanaa xamoo woon boo commencé di wax nguur gi ne ko ne na na na na wuti break te defar la lopitaan yi xam na nit ñoo xam ne am am am am quite let down by them there are people that are close I think it's about three people three or four people and wax nañ ma ne lu tax ma wax lool ñu ne mën naa bàyyi di def noonu naa continuer support nguur gi because su ma continuer support nguur gi mën naa see am lot of interest instead of finding break and telling the truth who cares about the truth I was like whoa so you rather I support Ngurgi you know and people dying in the Jombabari hospital with no good health care and the rest of the things and just get whatever you think I can get from it but man I'm somebody that I'm so easy even if I have porridge I'm fine I'm so laid back with life <laughs> so as long as I pay my bills my electricity and stuff jokes aside but it's crazy anyway I have to end this video but if any of you want to call you can call on the Facebook Messenger I'll just let you say whatever you want to say and I'm gonna end is just we a lot of help si bëri nangu ñëw admit ne suñ community bi dafa need help wala ñun suñ bopp dañ need help community bi dafa need help but soo ko bëggee dimbali dangay dangay fix sa bopp kenn ku ne soo fajee sa bopp rek community bi yëpp fix that's the only solution bul foog ne communauté bi dafa nit xeer da ngay ñëw yuuxu nga xas nit ñi xas communauté bi comme Jom Fabry Ami Diop you know just going crazy no loolu du faj communauté bi nga leen di jàngal xaste ak defante ak mer ak stress ak lack of discipline when you're angry lack of controlling your emotions so many bad things nga leen di jàngal including sa own doom yi nga jàngal leen ko nu ngay def soo buggee faj community mooy nga faj sa bopp si faj sa mental health faj sa xel mi faj nu ngay jëlee isu su isu xewee nga faj nu ngi koy handulee faj ni ngay xalaatee faj ni ngay def soo ko defee rek nga commencé di think nice and positive and normal human being way wala sooy handle something sax nga handle ko in a honest caring way at least yaa ngee faj société bi di leen jàngal how to handle matter musóor gaa ngi dem si kaw rek dos sum li dama ko waroon a si gannaaw te piinuma jàngalee community bi how to handle matter the normal human being way faj nga leen loolu rek lañ xamut moo tax mënuñoo ko rek moo tax mënuñoo faj dara moo tax Gambie mun a ko rek parce que miinuñ handle matter the normal human being way dañ miin mer te ko ñu ñu si bëri ñu ngi dund métit guñ dund buñ doxee gu ne dóor yëpp yi raxas bool dóor yeeg jëndi xorom dóor yeeg yéex bu xam wala togg sukul xorom sa bëri dóor raxas bool yi setuñ door yeeg nga wax sa yaay wax nga wax door yeeg fen dóor yeeg doxi dóor yeeg every different dóor yiñ magee téeméeri dóor in one day yenn ñi sa yaay dóor la sa mag dóor la sa baay dóor la sa nijaay dóor la ticay dóor la everybody dóor la in one day oo yeneen yi ñu dóoree la xas xas te xanaa xamoo moo raw dóor Afrika Afrika rek si xas gone Afrika rek si xas gune xaw ma yeneen dëkk Afrika waaye Gambia Sénégal si xas gune gune guñ cur yàq ko buy fukki gune la juróom-ñeenti yëpp xas nga leen ba yàqal leen seen xadduna sëpp leen nag ñu rafet ba bugg a dee ne jog ngay sumaal yégoo si dara di tànc sa wujji tànc soo di xuti xuloo ak nit tànc ami jóob tànc kumba tànc faatu tànc ku ne tànc gune ga sa boppam tànc gune ga ba sëbbal ba ba ba xajta xajta dëggeen bay watatu def naa ko man mii ci suñ culture bi laa jógee waaye nit dangay change never mind changing àdduna bi yow focus on changing yow rek soo changee yow rek change nga xadduna bi yow that's the reality gone gi boo ko yàqalee àddunaam di ko tànc minal ko tànc minal ko lu ndaw lu ne rek nga xas ko booli saa raxasoo leen yow xalaku nga billahi yaa toskare nangam sax mënoo ko billahi yaa useless billahi yaa bon waxoon na la bul defati lii yaa useless yaa lii sa jëbu guddi bile sa lii bi yaa bari wax yaa mun a fen yaa lii yaa laa gune ga ne ah ndeke doomu Adama Njaay su defee dara la naqadi nga koo war a tànc juróom-ñaari maamam sëpp gune ga rafet do bu ko dee ne jog fekk yàqal na ko àdduna gune ga ne jog gune ga mag nag jàkkarloo àddina bi àddina si jàkkaarloog moom nag mu mel ni gaynde ku ne benn mu ne la junni sëpp la taxawal lii moo ñu dal ñun ñu ci bëri te yéen ñii séddale vidéo yi ngeen ma wax leen lii bala maa dem sama bopp baa ngi metti ba tey bu leen di wax ji de yéen xam ngeen ne lii moo ñu dal bu ngeen ko xamutoon xam ngeen ko tey waxoon naa leen ko du benn yoon du ñaar yoon baleen nag kon vidéo yi ngeen di seddale bu dee xamu leen ko woon xam ngeen ko tey ni ngeen di def bu ngeen gisee bu baax du ngeen ko séddale def leen ko bu ngeen gisee bu bon di ko romb yi wëy kuy def vidéo bu bon buy man la sax bu leen ko seetaan su ngeen kiligee gis ne nu bon lay wax bu ngeen kiligul sax bu ngeen gisee muy def nii di sàngam di attaque nit au whatever ngeen romb koy wëy dana xam ne man suma ndof gi nit ñi xam nañ ko léegi ñu ngi may seetaan dana ceeñ hopefully wax boppam dëgg ceeñ ndax nit kenn mënu koo ceeñ moom rek kay ceeñ boppam waaye su xamee ne buy dof ngeen ànd ak moom di dof du ko bàyyi it's devil it's easy it's exciting it's nice it's evil lu bon lu nekk it's exciting it's that feeling of my jàmbaar maa sañte rek nga xam ne maa la gën saabee ji nga xam ne maa yow la it's that evil feeling def naa ko I know it I know how it di ko def parce que yéen buy ndof bu borom di dof da ngeen di ñëw di ko dimbali si ndaf gi ba pare nag di ko xas si ndafam gi te wóor leen ne ku leen fay fukki junni du ngeen ko def def leen seen bopp nit te xam ne vidéo yooyu ngeen di siya di ree tey seen doom dana toog Facebook def ko da moo ngeen koy siya da moo ngeen di influence doomi nit ñi ak seen un doom yi ak seen doomi mbokk yi seen jarbaar mën naa toog def ko seen rakk seen doom seen doom doomi mag seen kude seen doom best friend no one toog leen di séddale vidéo yi foog ne ndax par exemple Fatou lañ xas Fatou bële lañ xas wala Fatou bële lañ xas wala Ami Diop lañ xas wala diw lañ xas is good very good lii laa ko bëggoon wax mënuma koo wax very good séddoo xamal ne ëllëg danañ ko xasee sa doom bala sa doom xasee ko nit mbala ñu xasee la ko yow mbala ñu xasee ko sa jëkkër xasee ko sa ndey xasee ko sa anybody you love in this world no one is safe the nga share vidéo boobu the more the video have more share the more people consider this is good, this is normal, this is something that I should be doing when I'm angry too. Look at the amount of fear I have. It's good to be savage, insane, rude, arrogant, behaving like a mad mental person. That's what I should do. It's good. That's why people are sharing it. If it's not good, why are they sharing it? What new colored like that is the people that are not normal. Because like I said, even movie industry bi sax suñ defee film boo xam ne xamul xeex kenn du ko tey tey suma Facebook live bi su ma ubbiwoon suma tànk yi tey su mi suma tubee yi ubbi suma tànk yi nii ah millions of view lay xam tey ndax loolu baax na teel mi bindal loolu baax na baax na mag mu xel man ak suma doom yi toog tey may fecc di nga laaj ubbi suma tànk yi dinga nga laaj ñu xattaañu di di di wane suma lëb li ci Facebook la kon noonu view yu may xam imaam bi ma wax in the beginning fii muy taxaw la noonu si jumaa ji di wax one hour kenn du koy seetaan du ma sa man imaam boobu mosuma koo gis mu xamee ten bi te imaam bi duma ma three years nu ma ne Facebook di wax yëpp dama ko dee gis muy wax saa wu muy wax tombeel maa ngi Facebook ma nekk di ko seetaan di siya kenn du koy seetaan imaam bi li muy wax baaxut ndax baax na man su ma toogoon fii ubbi suma tànk yi fi nekk nii si saasi bi nga gis biiw yi yëpp tërr ñëpp walante ñu ma seet Amie Jobe mu ngi bi tànkam yi Facebook kese Amie Jobe mu ngi wane taatam yi wala ma ñëw taxaw sol lu bon sol topp bu gàtt tey boo xam ne fii lay wane suma faat yi may rancang wala may def rancang behavior sol du bon suma ween yi feeñ or something you know di rancang ah, si saa si ñëpp ñëw loolu baax na oo soo so loolu moo lay won ne vidéo boo gisee ni ñu siya rek mu am see yu ne vidéo boobu noonu dafa baax moo tax man lii moo tax ma soo gisee mun a continuer xat yi yëpp di wax su ma kenn seetaanut sax parce que man xam naa ne du ne nit ñu suñ ma seetaanee das mi lu may wax dafa baax non I don't care about nañu seetaan lu may wax as long man wóor na ma suma diggante suma tëraay bàmmeel ne saa ma defee vidéo bu baax like I said def naa vidéo yu bon in the past waaye saa ma defee vidéo bu baax man damay tëdd guddi nelaw so proud of myself te boo kenn seetaanoo ma sax man kenn mën naa wax ak caméra bi saa wu ma defee vidéo bu bon boo xam ne am na lot of view dama dee tëdd guddi du ma nelaw parce que man gor laa nit laa bu leen ma gis nii may wax nit rek laa dama dee feel guilty ruus ni ay man doomu aadama njaay suma moroomi jigéen ñi toog seen néeg duñ def ni man gënuñ ma suma moroomi jigéen ñi toog suñ ne seen néeg di raxas boo tey di seetaan suma vidéo bi di ma ree di entertain seen bopp gënuñ ma de waruma woon a nangu àdduna di ma def loolu léegi xam naa ne stress naa àdduna métti na te suma stress bi maa ngi koy génnee fu ne waaye waruma woon def lii vidéo bi tey de dama dee rus ba pare ñëw génnee ko ma xam ne su ma ko génnee nit ñi nañ ko xamee nañ ko nañ waxante dëgg Facebook live bi du dem fenn su demoon nit leneen dana ñëw bitim réew dafa bëri internet te tubaab bi dañ si meeg ay millions waaye ñun jaruñu di continuer di ko use di yàq suñu àdduna àdduna lay kase kenn matut comme ni ngeen ma influencé ba ma ñëwoon di def fii vidéo dof yi ngeen di def yéen itam wóor na ma ne keneen moo leen influence ba tax ngeen di ko def ngeen war a continuer anooda xat da ñetti xat di def vidéo yi bon xam ne yokk yéen yoo xam ne juróomi xat fukki xat yéen a ngi ci vidéo yu bon yi dee dafa yomb koro koro oo seen last vidéo bi ngeen di def facebook bu ngeen deexee dalee ko ci man est-ce que bëggu leen mu nekk vidéo bu baax bu wóor àdduna si comme sista Seynab mu dee noonu sista Seynab mu dee noonu te vidéo mi tax suma maas yeeg nit ñu bëri bugg a nekk nekk jigéeni julli ngir xam ne mu ngi newoon di jàngal nit ñi mbiri yàlla tey dee na waaye xoolal rek fa mu dem nii ñun ñëpp fa lañ jëm waaye moom de suñ xool daal na ne àjjana lay dem ndig lu baax lu mu daan def even doo num deexee ngay seetaan vidéo mu wecci sa àdduna soo doon taan julli da nga julli ngir vidéo soo doon taan muuru danga nga muuru ngir vidéo soo nekkaan di nekk nit ku bon kuy saagaa ka def lu bon soo duxee nit te xam te gëm yàlla boog da nga wecceeku ngir vidéo even doo dee na that's what I call a video waaye vidéo boo xam ne ku ko seetee si ku ko seetaan su baaxoon su xamul jom dëgg fay bon ko seetaan su wéru dëgg dafay dof ni yow ngir saaga yu bon ak sañ wax ak yëfi dof yan cay def sa un doom yi ñoo am pour protect seen bopp from your madness because you cannot protect them you're not teaching them nothing good they have no parent they have to be their own parent to sit down and say I don't want to be like my mother look at my mother on the on the video I would never want to be like this he man maa ngi dem like I say sama bopp metti comme neex nga continuer ràng faatu mii ak faatu maax ak ki naa di saaga di buddi saagay ndey yéen ñii xam na si yu mere faatu mënee bi koso yaa jame moom doon xeex yaa jame du faatu rek moo ko noo xeex yéen ñi bugg yaa jame yépp xóor na leen seen trahir bàmmee ne yaa jame dafa nekkoon ruut arrogant insane lu ko neex def doomu aadama njaay leeroon na leen ak seen diggante seen bàmmeel te ñi bëggoon mu génn si Gambia faatoo si gën a tuuti ñëpp bëggoon mu génn man sax defuma woon vidéo pour moom waaye bëggoon naa mu génn maire ya toogoon sa roon garab ya ñi nekkoon ànd ak moom sax boog soldaaram yi sax ñu bari dañ bëggoon mu génn ndég de not safe you have to listen to him or you're su fekkee da ngeen xamee mere faatu boobu noonu ne mukk lu tax mu doon wax bi yaa jame neexut fi woon te moom kenn nekkutoon di wax ngeen xamee ko si xol di rikk-rikki si bi di saaga di rikk-rikki mel ni ay rab seen morom mi nit di leen seetaan di leen ree di foog ne da ngeen am mental issue parce que the reality is soo nekkee with your full senses with your peace with your mind peace with this dunya you will not be saying certain word including me that was saying it I was in peace with myself and this dunya that's why I was saying it true 100 ku koy seetaan ku ne xam na ne li tax ngay def li ngay def waaye buggut la enough pour protect la moo tax mu di ko séddoo ak di la wax ne yow rek a baax si moom moom lu tax bi ñoo def vidéo boobu boo ko fayee ten thousand sax du ko def like ka said continuer leen nag ndax Yaya Jammeh xas na ba génn fa xamul lu ngeen di wax ba yaa Jammeh ñëwaat continuer leen di saaga ndey ñeneen ñi la di leen saaga ndey ngeen di saaga ndey ne lu tax kële daan xeex yaa Jammeh wala ngeen di saaga ndey kële kële ne lu tax nga saaga ndey kële ngeen di saagaante ndey mel ni ku dof di yàq doomi nit ñi di yàq seen doom yi di yàq yuut si di yàq even mag ñi nga xam ne ñu ngi toog te nit help des stress ngeen di leen yàq di leen influence seen yëfi dof yi rek continuer boolee àddina si yëpp di ñu ree di ñu daw naan africain yi day stress te xam problème xool leen ni ñuy def continuer leen àddina sàngoo saa wu ngeen génnee si àddina si seen vidéo yi dana fi des ni sista si ab vidéo mi desee fi comme man tey suma ma deewoon sama yi ni ñu fi desee yu baax yi yu bon yëpp noonu la seen vidéo yi di fi desee si àddina si nit ñi di ko seen doom yi di ko gis seen xol bi dog wala ngeen wecceeku def seen bopp nit xam ne nit ñi ngeen di farle seen yoon néew si faatu sax wax na ko si vidéo bi dem moo tax ma ne man dootuma farla ti kenn yàllaa ko wax loolu mu ne moom du ma sa jox xeexal nit suma ay paat baa ngi jeex sax du sa jox xeexal nit ku bugg a xeex na nga jóg xeexal sa bopp moom du ma sa jóg xeexal nit ñàkkeewul fan doon fayda sax wax na dëgg man xeexal naa ko cartuma bi ko ni ko pandari doon tàncee nii also there was another time two years ago or something I did a video to protect her I think I did a video to protect her two or three times and I don't even know her I think it's three times or something I don't even know her it's actually more than three times not just her a lot of people pour dimbale na xam ngeen ma it's all due to soo gisee ñu dee dimbali nit torop nii it's all due to nuñ magee stress biñ magee ak métit biñ magee moo tax duñ dee bëgg a gis kenn métital kenn lii mooy suñ problème waaye loolu du ko faj because de moo ñu ngi focus si problème bu ñuy faj de moo problème di ñëw because ñu ngi koy faj ak yuuxu ak saaga problème yi di gën a yokk ñuy gën a yuuxu rek di yàq suñ doom yi di yàq suñ aduna di yàq suñ bopp ak dépression instead nañ jéem a baxal suñ culture métit bi ñu teg yépp ñu baxal ko te weccee ko te xam ne métit wi soo yuuxoo bañ suul la it du dal na la ba pare either is child marriage métit or whatever soo yuuxoo di dimbale nit ñi xeex di xuloo saa yu ne di dimbale yaa jàmmeeg dimbale faatoog dimbale faatu bële saaga ndey ñu saaga si sa ndey woo lu tax sa métit bi nga dund génn luy génnee métit yi mooy nga baxal culture bi te xam ne lu la mënti dal dal na la already move on now for tomorrow nga focus nga stay positive learn good things, read good things, do good things, listen to good things. Stop watching negative, negative stuff, listening to negative people, doing negative things all day, and your negative mind is always active and you're going crazy. Ah! It's not going to help what you've been through. It's only going to make it more. It's only going to double the anger. You're always going to be like, yeah, look at these humans again. They've not changed it. This is what they did to me. They're still doing it. Look at jéema la wecceeku jéema la xam ne gune yi ngay yar nu ma leen waxee ne suma doom jii dafa watu ngir watu yi mu daan gis may def loolu mooy lu gën a tuuti si lu suñ doom yi def ku foog ne nag ngay ne Facebook wala nga ne fu la neex di abuse nit ñi di wax lu la neex di saaga ndey ak a fa wan na wa te sa doom yi duñ ko def xamal ni ngaa wetul suñ ko deful Facebook dinañ ko def another way fu mu jaar rek ñu jàng abuse verbal abuse and madness bu ngay def fu jaar ñu jàng ko gis nga si ñoom nag ban boor lañ koy jàngee waaye nekkoo di leen jàngal how to cope with life when you are stressed how to handle life stress how to handle life matter nekkoo di leen ko jàngal you only teaching them how to be angry and savage and sañ wax and dof te àdduna dafa ñëw ak naqat ñëw ak bad situation ak good situation tout soo xale yi suñ magee suñ xamee bad situation nuñ koy handulee loo leen jàngal lu dul rëj xale yi mën nañoo mag xam bad situation su leen yàlla dimbalewul mën nañoo rey nit te di kaso yàlla tere loolu nga leen jàngal di mer yuuxu loolu nga leen jàngal di du loolu nga leen jàngal ne soo meree loolu nga war a def so nañ leen xam ne doo seen mata faatu kamara président ak nippiti nguuloo li suñ yuuxu yi ñuy def nii ak saagaante ndey yeeg ŋàññi vidéo yu bone ŋàññi yi like I said def naa ko man in the past te regret naa ko te rusuma pour wax leen ko nit rek ngeen ni man doomu Adama Njaay it's not about this is who I am I don't care it's about nga admit the truth mistake yu nga def nga work on change ko loolu mooy doomu adama njaay jarul ngay weak di stay in the easy path of just defending your madness people know you're mad even if they share it so why you defending it tojoo fen sañ wax saaga def vidéo sañ bu dof it's not gonna touch nothing only madness touch te xamal ne li ngay def sa doom yi bu luñ ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw vidéo yi dinañ fi nekk junni xar sa doom yi dinañ ko gis dinañ ko dégg also like I said nu ngay waxee dafay tax nga miin ko di ko waxee sa doom yi di leen yàqal seen àdduna so learn how to be normal nice kind normal human being you can still do videos that even if it's one person watching they will learn from it than having hundreds of people watching and they will only get evilness from it and destroy their their future and their believe me learn this from me suma whole life maa ngi xeex pour dimbali nit man benn yoon la ñu mos a yóbbu police Gambia te dimbali nit moo tax ñu yóbbu ma police dinaa bi soon it's very funny but it wasn't ñu yóbbu ma police fanaan police station ba bët set Serekunda police station ngir dimbali nit kuy dimbale nit maay sama gis ngeen ma Facebook lu ma def di sàngam ñu toog yow ñu tax nga wàlli ngee gis ngeen ko li su ma see saaga nit ndey nag waaye gis ngeen ko maa ngay dem continuer leen di def lu leen neex lay kay seet lii da ngeen ceeñ def seen bopp nit pour seen doom yi te xam ne nit ñi ngeen di dimbale seen doom yi leen gën te seen doom yi di saa fañ ni nga continuer di leen yar nii àdduna da five years parce que àdduna problème bi du jeex yéen ñii xeex ngeen leen tax yaa jame donc kenn da ngeen xeex bañ rob leen yaa jame den na pare moom ma tax xamante ne xeex so seen doom yi di gën a mag ngeen di gën a xeex rek seen doom yi di ko gis at bu ko gis xam nga soo nee si vidéo bi di yuuxu dooy seetaan sa bopp gune ya toog fële piccool sa bopp piccool bopp yow yaay sa yaay yaa ngi facebook di def nii sa doom ji toog si koona bi di la xool piccool sa bopp xam nga man I like to visualize I like to picture things loolu moo dee dimbale pardon bi suma àdduna piccool sa bopp sa doom yi toog si koona bi di la seetaan yow ngay def facebook di yuuxu doo dooluñ ndaw ndaw danañ ko fàttaliku lay cassette vidéo yi du dem fen dañ ko nit ñi dañ koy download boo ko deleté sax nit ñaa ngi ko download xamee ko seen messenger yi hey déglu ma rek ba ma weddee ay xat ci kanam di seen vidéo bu nga download bi nga delete mooy ñëwaat cop man am na vidéo yu ma delete yoo xam ne nit ñi dañ ko dee séema di ko gisaat naan wat waaye so xamal ne sa doom yi ñoo gën a barke ñoo gën a baax ñoo gën a gi nga ni koy farle tey su dee force la di la o Fatou Camara whatever for example hmm? barke bu ñu xam yëpp sa doom yi mën nañoo am lu ko raw xam nga kooku tey gis nga ko lu mu nekk xam nga lu mu nekk sa doom yi nag xamoo lu ñu nekk suba xanaa kooku mu nekkee xale nit ñi dañ xamoon lu nekk yaayam dafa xamoon lu muy nekk sa doom yi mën nañoo mag nekk président nekk ministre nekk lu ne si àdduna bi soo leen ko yàqalee nag because yaa ngi leen di jàngal réej mer saaga sañ wax wax jàmbaar ci wax man nañ koo jàng waaye ñu ko defut Facebook sax fañ koy defee neneen loo xam ne mën na leen a tëjal tëddal kaso jox mën na leen a jox criminal record mën na leen a jox laay bu bon président bu ñu waroon a nekk wala lawyer wala ministre wala whatever good job bu ñu waroon a xam scientist whatever yëpp nga yàqal leen ko ñu nekk criminal bi ko yaa leen jàngal jikko bu bon why no Fatou in this world what that no president nobody what that in this world not even your mother no one what it your children have to be your number one priority You bring them to this world, they are precious. Look, maa ngay dem continuer leen àddina sàngoog yéen a ngoog ñun dinañ toog fii di seetaan ku def vidéo dof suñuy toog raxas bool kilik ko seetaan ko yenn di all the time de du ma dee mën a seetaan vidéo dof yi yëpp te du ma dee like seetaan too much negative stuff te yenn yi dee gudd comme sama vidéo bi rek vidéo dof soo ko buggee seetaan gudd muy saaga di repeat di wax waxi dof all day mënuma loolu so dama dee seetaan vidéo dof yi waaye du si dee yàgg bàyyi naa ko am na temps dama ko daan dee waaye léegi bàyyi naa ko mun naa ko seetaan for example five two minutes ma ne oh my god this is insane and I like oh my god this person is like Amie Jobe they need help but am na ñoo xam ne mun nañ ko taal whole day di toggaañ di déglu di ree di xaqataay wala di call seen morom ñi dégg nga diw li mu def hey man kii mbaa nit la kii lii so def na si yow nga continuer di entertain nit ñi ak yow madness di yàq sa life doom yi di yàq life generation bi nit ñi nga entertain di ko share foog ne ndax this is joke they don't know the damage of this wala nga change des sa bopp nit te xam ne àdduna si coro or not dañ need pour fix suñ mind bi time mi koro bii mooy time mi fix mind yaa ngi si kër gi yaa ngi toog jéema la think of positive things and do things that will benefit you hopefully suñ génnee si koro bi si jàmm nga nekk new person happy positive living a life person focus on how to develop you and your children and your life never mind a Jammeh president or Barrow or whatever da da da they will never change the government is always a government jokes aside although you want to fix it they cannot fix it like the way we want sometimes they don't have the money sometimes they don't have the right people sometimes it's Life is not perfect. Learn how to cope with it, or even if you're gonna talk, talk with it with respect. Do not ruin your life, your children's life, your future, young people that watching you, or even other adults that watching you that need help. You influence them to go mad. It's not worth it. Think of when you leave this life, what you're gonna leave behind. Because every single video you do will be saved forever. Like I said, when you're on, they start recording I wish I know how much how much how much screen record is having this minute. The moment you on the screen, the screen recording you in case you delete the video. So you don't want nga dee ba pare video bi nekk fii nii boo xam ne dafay damage ay live xalaaxira nañ gëm ne su fekkee demuñ ba ñëwit nañ gëm ne dëgg la te su dee dëgg la bëggoo ñu wan la sa vidéo bi ne la ami xoolal vidéo yi nga daan def yëpp ngay yàq doomi aadama yi seen xaduna di leen jàngal how to do these things how to go on someone rage saaga xaste lu nga xam ne yàlla nangu ko si alquran bi ba pare nga ne man maay sa yàlla léegi yow bu nga nekkee si àdduna bi lu daan def sa facebook live bi yëpp a ngi nii du ñu ne lu ñu daan def yàlla fa koy wone waaye foog naa ñun ñu bëri gëmuñ yàlla